su fekkee ne xaj na ci ci assemblée nationale bu Sénégal bi nga xam ne jamono ji mi ngi ne ci liñ tuddee marathon budgétaire di woote maanaam li nga xam ne moom la ñu war a tànqal euh, ministère bu ne ngir mu war a doxal da nga xam ne moom lañ ko dénk euh, ci programme bu président Macky Sall dinañ ko waxtaane waaye tamit euh, dinañ waxtaane parti bii def ak seeni i coow bokk na ci li ñu tuddee cumul des mandats nga xam ne kii di Birame Souleye Diop moo ci génn am lu mu ci wax bari ki mu jur nag coow le ko waxtaane ak suñu ay suñu ay jàngatkat waaye dinañ waxtaan tamit élection présidentielle 2024 ak ki nga xamné euh, mom moy wa APR Alliance pour la République nga xamné fan yi nénañ euh, ñi ngi ci njaayum carte waye ba légui waxaguñu euh, kan moy sen candidat ci élection boobule waye actualité tay bi moy actualité ajjuma bi moy mbirum Pape Alé Niang suñu natango boobule nga xamné ay fan ngi mu ci kasso bi tay nak taskatu xibaari ci Sénégal andon doon dox doxu ñaxtu ngir gouvernement bi wala boog Sénégal dégg leen xamné ne li ñuy ñu jëlé ko ci famu mu delu ci euh, njabotam loolu lépp dinañ ko waxtaane léegi-léegi ak suñu ay gan gan yooyu le bokk na ci Alioune Badara Diop euh, Diouf Alioune bader Diouf député la nekkoon ci assemblée nationale bu Sénégal euh, ci session bee ñu génn waaye bokk ci alliance pour la république sëñ bi Diouf maa ngi lay nuyu dara dalal jàmm Euh, merci Moustapha merci beaucoup si invitation bi maa ngi lay nuyu di jottali ñu kilifa télé bi di nuyu suñu naataango yi ñu bokkal débat bi. jërëjëf di nuyu également seeni téléspectateurs yi ci biir réew mi ak yi ci bitim réew. Hmm. di ñaan yàlla rek euh, débat bi doon débat bu serein bu amal njëriñ askan wi. incha allah euh, loolu daal bëgg nañ ko ci débat bi incha allah. incha allah euh, ki nga jàkkaarloo tey mooy Dame Mbodj jàngalekat la syndicaliste la waaye tamit bokk ci kuréel gi ñu tuddee collectif pour la libération des détenus politiques waaye wala bok coalition le peuple Dame maa ngi lay nuyu di la dalal

monsieur Diakhaté je crois bu dee nga jàngee nga CMT. mais absolument professeur de technologie. absolument moom la taawam wàññeeku. fa laa jóge nii tey ci Louga moo tax sax fekkewuma marche bi waaw ndax bi ñuy euh, déggante ci ngoon yaa ngi naan yaa ngi ci yoon Louga di ñëw. waaw boobu maa ngi jóge Louga di ñëw ndaxte dama demoon dëj donc parce que moo doon sama tuteur à Louga. bi may hmm. jàngee lycée Malick Sall bu Louga. Hmm. te bi may woo noonu ci la euh, marche ba di jeex donc mënoo ko a fekk. effectivement <laughs> Eh, ginnaaw bi ma ñaanalee sama rakk jooju yàlla xaare ko àjjana. Mhm. moom Souleymane Diakhaté may wax waa eh, journaliste yi que li tax ñëwuma. dafa daje ak sama rakk génn àdduna. dëgg la loolu moo tax mun moon a ñëw ci ci marche bi tey mais marche bu mucc ayib la xëy na daan dëgg la moom la ñuy waxtaane euh, marche boobule ni ñu koy defee àjjuma bu ne am na suñu ay chroniqueurs yoo xam ne moom la ñu àndal ci ñoom euh, tey euh, suñu pencoo dafa nar a alaa daw ne leen ci paysage ci ay jàngat yoo xam ne dañ koy def ci actualité réew mi ki ma ciy njëkk a tudd mooy benn Mokhtar Diop journaliste la bindkat la yàggul dara génne na benn téere jëmale ko euh, ci presse ni muy doxee ci réew mi benn waxtaan maa ngi lay nuyu dara dal dalal ci penco. ñom mbégte trop euh, ñew wal Walfadjri toujours un plaisir parce que biñuy ñuy commencé may war le chariot de feu mm-hmm. di fàttaliku. wallaay euh, balay journal du commencé jëm si mm-hmm. yàlla Sidi Lamine. On a 3 minutes de leen dese deux minutes de leen à l'époque c'était en 2000 2001 mhm. et donc euh, dafay réveiller souvenirs yu bare euh, am mbégte surtout itam euh, dajeeg ñoo xam ne xam nga leen mhm. Pape Matar bi le frère mhm. mais surtout Dame xam ça fait des années que gisante wuñu <laughs> nga ans, di seetaan gis engagement bi et que li may di wax souvent Sénégal dañuy juger nit té duñ ko xam. hmm dañuy di teg ay mbir ci nit té duñ ko xam. ak bari boko ko ci domaine ba mu nek xamni que ni kangam la fa ndaanaan la fa. Euh, raison pour laquelle euh, toujours dañu am plaisir. té damay di wax ni que ni euh, daam souvent du di wax fan la jógee. Mhm. Euh, mi ngi wax Louga. Mhm. wante fa mu dëkk. Mhm. avant Louga la. géwul <laughs> <laughs> batay sax balaay geewul <laughs> batay sax balaay géew <laughs> balaay géewul kiir joom waaw exactement <laughs> donc c'est c'est important euh, heure bu may dem dar ba egg fofu dama nan ah sama waji fi la fekk bax boko beugé bëggee xam nañ koy fekk fi donc c'est c'est vraiment important Rama aussi dañ koy registre toujours euh, ci écran bi donc vraiment ñu yaakaar ni que ni on fera un débat qui va beaucoup apporter aux Sénégalais sans aucun doute honorable euh, euh, très heureux de vous de vous rencontrer aussi. jërëjëf euh, keneen koo aussi on est très heureux de de recevoir moi euh, Abdoulaye Mbao, journaliste analyste politique nek ci journal bi di le vrai journal Abdoulaye maa ngi lay de la dalal jàmm. maa lay fay bu baax Seigne Moustapha di am mbégte. euh fekkee émission bi. nga moom ci marché bi la ko jëlé tay quoi. <laughs> voilà <laughs> ma danga ma arraché <laughs> danga ma arraché alors que véritablement. Morphée Morphée me tape dans le dos. Hum, bah, waaw c'est sûr parce que xey nañu dem le matin très tôt c'est mhm. une émission pour faire la communication autour de la marche. de la marche de la grande marche sax la wax. Mhm. Euh, euh, Dame de nouveau Ben. mon grand frère mon directeur. Mhm. de nouveau bu baax honorable de par bu mon frère que j'ai le plaisir de retrouver vrai moom léegi nekkatul femme de Thiès. femme de Dakar maa ngi koy siyaar bu baax. lébu la léegi Ramatoulaye Sarr maa ngi lay di la dalal jàmm. Moustapha maa ngi lay fay également di nuyu suñu gan yi honorable nuyu également. yaa génne ñaay génne bëggul moom yaa bële du yaa gën a yaay gën a bëggal moom yàpp lay dundee ale ale ay ca leen ca kanam gën lu mu soon góor a daan yéene jàmbaar jàmbaari réew mi équipe nationale su xol yi ànd jiital suñu réew waaw wallaay ndam li dina ñëw c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous mooy ki leen di jëmale kanam. la voix des sans voix. Walfadjri, la voix des sans voix. La voix des sans voix.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 seen émission penco ñuy ànd konte ak mboo Mbodj député Alioune Badara Diouf benn Mokhtar Diop journaliste analyste politique ki nga xam ne mooy Abdoulaye Mbow chroniqueur yi ñu àndal tey muy xamatulaay Sarr ak Pape Mokhtar Diallo Dame alors yow ci yow sax la ñuy commencé suñu waxtaan marché bi nga xam ne moom moo amoon tey moom lañ bëgg a njëkk waxtaanee tey. Euh, yag ngay marche nga ah, euh, jangale kat nga syndicaliste nga tay bi nga bi nga gissé wala bok nga am les échos de la mobilisation des journalistes ban jangat nga ciy def ci mbirum Pape Alé Niang. waaw d'abord euh, Moustapha dama bëgg nga may ma rek mo wax d'abord ni démb dem na séti Pape Alé. Mhm. ah dem nga fa dem. Wa dem naa Sébikotane. Mhm. séti ko ñu tok waxtaan parce que. comme ni ko ñëpp xam ne détenu yi boo demee. Mhm. Euh, moom dafa bëri visite nag macha allah parce que dafa créer embouteillage foofu ba Matar. Mhm. Euh, mais day trier pour mën a waxtaan ak ñi mu bëgg a waxtaanal ci dal. Mhm. jël na temps waxtaan ak man bëggoon nañu waxtaan ci lu bëri mu am lu ma yóbbante Sénégalais yi. Euh, lu mu yóbbante également journaliste doon marche tey parce que dañ ko jàpp moom mi mi mi mi jàpp xam na ni li ñuy lay do loolu lañ ko jàppe parce que dañ koo jàpp ba noppi di wax leneen la tax ñu jàpp ko waxuñ ci. waxuñu ci waaw waxuñu ci li tax ñu jàpp ko. loolu Pape Alé loolu la wax ne sénégalais yi nee naa leen nañ wax ñi ma jàpp comme nee nañ man dama nekk un receleur maanaam kon daa am ko sàcc. Mhm, jox ko jox ma. Mhm. léegi waa man bala ñu maa lijjanti nañ wax kan moo sàcc. léegi nañ ko wax sénégalais yi kan moo sàcc ab document jox ma ko. Mhm. ba man man ma mën a nekk receleur maanaam jàllale ah, lu yëfi sàcc. loolu nee na bëgg na sénégalais laaj ko ñu ko jàpp. beneen bi mooy comme dañ ne dafa divulguer ay documents dafa teg ci penc mi ay documents yoo xam dañ koy nëbb. Mhm. léegi nee na documents yooyu ñi ko jàpp nan wax yenn document la. yan document la ah parce que bu ñu nee dafa am ay mbir yu mu génne teg ci penc mi kon ñoom dàkkoon nañ ne mbir moomu am na. Mhm. parce que bu amul woon du ko mën a teg ci penc mi. Mhm. loolu mu teg ci penc mi lan la. waaw loolu day jar na laaj bi mu bëgg sénégalais yi nag laaj ko ñi nga xam ñoom ñoo ko jàpp loolu bi ma ko waxee ñu waxtaan ma gis ko mu am nit mu nekk nit ku am fit koo xam ni euh, il prend les choses comme ni mu ñëwee ni ñëpp xamee ne jaay doole rek la deful dara hmm. euh, dañ ko bëgg noppiloo ba tax ñu jàpp ko kon tey

Moustapha man Abdou hmm. Karim dama ko xam bima ma mom xamna xam naa Abdou Karim état de santé mi ngi dégradé wu donc nañu bayyi doomu jàmbur mu dem faj parce que mom wérul état de santé may ko muy tok ci yenn conditions carcérales lolu c'est important ne serait-ce que pour les droits de de l'homme ça nit ki quoi li nga am ak fam la nañ ko bayyi mu dem faju ji tok këram hmm. parce que li ko jappé ay tappale kese la euh, opinion la wax ñu téyé ko ci lool ay loolu réew yépp dépassé nañ légui ay délit d'opinion hmm. maintenant nak yeen mobilisation bi nga xamné mom la journaliste def tay and ci hmm. nak ak sénégalais yépp parce que ñu bari ñu waa Colideb absolument Colideb dañu amone autorisation jóge place de l'obélisque dem euh, rond point BCEAO hmm. parce que les ken montu lay ak RTS ndax nee nañ dafa am ay travaux légui ñu autoriser leen nam préfet Dakar bi bëgg na ci profiter wax ko ko 14 h du heure bu ñu autoriser vendredi 14 h ñun dañuy julli ji 14 heures la leen joxoon 14 heures la autorisé te kenn demandé wu 14 heures mom le préfet de Dakar na bàyyi yi muy def 15 heures lañ ko wax 15 heures 19 heures amul droit changer itinéraire sans mu waxtaan ak ñi déposer amul droit changer heure u marche bi sans mu waxtaan ak ñi déposer donc loolu nako ko mom moom préfet Dakar bu bees bii bële dem dar dama ko doon wax ne ko bàyyil sa lambar lambar ji mais ki tamit na bàyyi affaire am yi muy def ni nga xamné ne. ay bàyyi changer amul droit changer heure bi et 14 heures dañuy dem julli ji donc mobilisation bi c'était une mobilisation exceptionnelle parce que dañu muju coli dep euh, marche bi mu daan def à la place de l'Obélisque mu déplace ko ànd ak journalistes... journaliste def une grande mobilisation ...Machallah, ko ku gis euh, image yi di nga sénégalais guen nañ répondre à l'appel des journalistes mhm. euh, pour won leen ne dañu japp sen naataangoo boo xam ne deful dara ñukoy jaay doole ñom ñep ñew andando won président Macky Sall ni ko réew mi moomoo mhm. kon dañuy sargal journalistes te it ñu teg ca ni xeex bi day doog a door. waaye tant que Pape Alé Niang génnul ak moromam yi nekk ci biir prison bi nga xam dañu leen def ay détenu politique di leen jaay doole xeex bi day wéy. Euh, Alioune Badara Diouf est-ce que même analyse bi nga ci am que ni euh, Pape Alé Niang dañ ko jaay doole tëj ko kaso mais deful dara. bon loolu la Dame euh, Mbodj wax. <clears throat> ma ma commencé par massawu leen. Mhm. massawu toute la corporation. ndaxte kaso moom kenn yéenewu ko kenn. déedéet. ça mom ñu ngi leen di massaw bu baax a baax mais quant à Pape Ali deful dara moi je ne partage pas cette euh, opinion dans la mesure où euh, c'est vrai ñi dem tey au-delà des euh, des des des citoyens yi ñëwoon di leen soutenir. Mm-hmm. mais corporation bi def nañu ko par devoir moi je salue ça par solidarité devoir de solidarité c'est normal parce que ku on nek ci ay tolof-tolof soutenir mhm. quelle que soit la situation Wa solidarité de groupe donc par rapport à ça amul problème mais papa Ali man dama tok deg avocat am biñ ko téye mu wax mhm. ne papa Ali ñu koy atteinte à la sécurité nationale euh, c'est trois points publication d'infos de nature à nuire la défense nationale BNB comme nous avons recel de documents administratifs recel bi euh, euh, trop mais enquête koy enquête euh, recel bi diw <laughs> donc l'enquête mu son cours normal euh, beneen bi mooy diffusion de fausses nouvelles te moi j'ai entendu l'avocat amul ben yon bo xamante ni nié na les faits daf mhm. euh je rappelle ça yaakaar naa ñun ñep dégg nañ ko daf ne Pape Alé il n'a fait que reprendre kan ci avocat lu mu gis lu mu gis ci réseaux sociaux donc mais bañul ne Pape Alé def na ban ban ci avocat mi. bañul c'est important nga wax kan ci ñoom bañul ne. Mhm. Euh, def na lo xamantene ni yoon da koy téré du dëgg. Mhm. mais daf né mom Pape Alé il n'a fait que reprendre lo xamantene ni daf ko gis ci réseaux sociaux yi. Mhm. donc là aussi l'enquête va nous édifier def naag deful mais procureur Kim japp né ne def mom moy Pape Alé mais l'enquête va effectivement prouver si. Pape Alé da ko dans les réseaux sociaux djel ko donc nañu nañu wuti ki nga xamantene ni. si la donc tout ça l'enquête va va définir toutes ces questions là euh, euh ma wax rek ne. Pape ma wax rek né gis nga Pape Alé yag na wax yag na wax ngeen président de la république wax ne ba mu falo ba légui amul journaliste bu nekk kasso ba Pape Alé. yamul fofu amna lu lan la ci yokk. du mës a du am journal bi dem kasso ci nguuram. voilà donc bu démé ba def ko rek. Ah, c'est parce que dagg loolu. su démé ba def du mës a am ci nguuram. déglu ma rek xam nga lo xamantene du sa yéné té fas yéné woko mais bo démé ba def ko rek da nga seuss parce que cette fois ci papa Alé fu mu laal la papa Alé yàgg na wax ci Macky Sall yàgg na divulguer ay secret yàgg na wax lu né mais cette fois ci c'est un problème bo xamantene ni ça touche la sécurité c'est un problème de l'armée il xamantene que ñun ñëpp nangu nañu manko nañu ne. Mhm. ken waru wax luddul ñom wala lo ni ñom nangu nañ parce que euh, euh li nga sécurité bañ nañ du compétence bu ñu on a beau transférer des compétences mais bañ nañ sécurité. Mhm. sécurité nguur moko état donc c'est des questions ni ku ñu waxul ne wax ci wala ñoom ñu def seen communiqué ñoom bañ nañ ko ba am. est-ce que loolu du yomb trop euh, ku ñu waxul ne wax ci bu ci wax non s'il vous plaît. ñoom hmm. bañ nañ ko ba am seen. Euh, seen seen seen silke comme seen hmm. dur pas hmm. boo xamante ne moom mooy wax seen kii après les les les journalistes reprendre ko donc noonu la armée mës di doxee ñun ñu nekk assemblée nationale gis nga foo mën a féete sauf que Aliou Badara liggéeyu journaliste je pense ah du du déglu ay communiqué dur pas pour pour pour wax li ñu wax non mais mais mais document boobu sax ban la ban. non xam nga man. allez-y allez-y xam nga man document bi. Hmm. man man kii nu mu tëddi. Euh, dam daam. ban du man nga koy laaj. ah dama la koy laaj. du dëgg du man nga koy laaj. ki def infraction bi fi nga dem noonu moom mi ko moom mu ko divulguer moom mi xam fu mu. fan la ko jëlee source am ça ne m'intéresse pas. moom nga waroon laaj ne ko. Mhm. yow lan nga publier bok D'accord. accord badre bu boba dana la ko wax mu leer. d'accord alors Ben waxtaan bu melne euh, li Alioune badre posé ni daf ñu indi ci deux niveaux de lecture D'abord, néna euh, secret défense la Ken buuru ci wax kudul l'armée bi là j'interpelle journaliste bi nga don question yo xamante ni kuñu waxul ne wax ci wala ñom ñu def sen communiquer ñom bañ nañ ko ba am est-ce que loolu du yomb trop kuñu waxul ne wax ci bu ci wax non s'il vous plaît ñom hmm. bañ nañ ko ba am sen euh, sen sen sen cellule de com seen hmm. DURPA hmm. boo xamante ne moom mooy wax seen i après les les les journalistes reprendre ko donc non la armée mës de doxee ñun ñu nek assemblée nationale gis nga foo mën a sauf que Ali Badara liggéeyu journaliste je pense hein du du déglu ay communiquer communiqué pas pour pour pour wax li ñu wax non mais mais mais document boobu sax ban la ban. non xam nga man. allez-y allez-y allez-y bi. man man ki num mu euh dam daam. ban du man nga koy laaj. ah dama la koy laaj. du dëgg du man nga koy laaj. ki def infraction bi fi nga dem nonu mom mi ko moom mu ko divulguer mom mi xam fu mu. fan la ko jele source am ça ne m'intéresse pas. mom nga waroon laaj ne ko. Mhm. yow lan nga publier bok D'accord Aline badre bu boba dana la ko wax mu leer. alors euh, ben, ben Mokhtar bu ah, melne euh, li Alioune badre posé ni daf ñu indi ci deux niveaux de lecture D'abord, abord euh, secret défense la qui buru ci wax kudul l'armée bi là j'interpelle le journaliste bi nga don benen bi est ce que du point de vue professionnel Pape Alé mën nañ ko reprocher une faute quelconque. Ah, merci xam nga C'est difficile. Mhm. pour un journaliste kudul journaliste juger euh, damay déglu honorable député. muy wax mais j'ai mal. Ah, vraiment. parce qu'il est de la mu ni Pape Alé yàgg na wax Pape Alé yàgg na waxal Macky Sall. wallaahi waaw. Ah Pape le 31 décembre bi mu togué 2011 mom ak le candidat Macky Sall sur le plateau de la 2S. Hmm. lañu ñu doon def foofu bu ñu toppee rek loi au Sénégal nous et pourtant ça ne s'est pas passé comme ça. top topé la loi Sénégal. je veux dire honorable député. disons un journaliste. Mhm. bu top, di y hmm. a 1 plus 1 égale 2 du la charte de Munich. Mais donc, vous, vous, reconnaissez l'infraction Non, je ne reconnais absolument rien. <laughs> je ne reconnaîtrai jamais ce que vous êtes en train de dire. Je dis que nous avons la charte de Munich, qui est notre Bible. 10 devoirs, 5 droits. Pape Ale defu luñ fi def. Waxu fi luñ Il fait du journalisme d'investigation point barre. Journalisme d'investigation, la ngay wax ken du ko di la dem vérifier ko lu mu mënti dama nangul la méthode triangulaire de vérification daf kay di def ci lu mu maintenant dafa am journalisme du feu vert ak journalisme du feu rouge Pape c'est le journalisme du feu vert lamu commencé woon journalisme en 2002 loolu lay continuer ba fi may wax ak yow xam nga Abdoulaye da nga taxaw ñu mhm. voyage inaugural nga dem ba Ziguinchor il a été le seul journal sénégalais pour interviewer le ministre Youssou Sakho ministre de l'équipement à l'époque Sibir Batoubi..! bateau bi interviewé le commandant Diarra il est le seul à l'avoir ba moment yi may wax ak yow kenn xamul dund na kenn xamul dee na bi ñu dafa objectivement en toute responsabilité mu ni bateau bi muy tey muy ëllëg dafay suux parce que benn moteur la am Pape n'est pas mécanicien mais bu je ko waxee Le PDS à l'époque dañ on verra bi affaire bi amee Pape dafa ni dootuma wax ci bateau bi parce que waroon wax wax naa ko parce que itam. Mhm. journalisme kenn du ñu may dara da ngay foqati di ko xeex di ko xeex ba am li nga bëgg. honorable député mënu leen nekk à l'Assemblée national di jiite sénégalais yi am yoo xam ni dossier dañ koy jël dugal ko sur la table te ñun duñu ko xam te du ngeen ñu ko may mais boo demee ba jot ka da koy téye nga xool jàngat ka parce que gënu leen ñu jàng gënu leen ñu bëgg réew mi aussi gënu leen xam réew mi. Si tu as ba nga ce la ni kenn yow nga c'est vérifié. Mhm. Li amul benn si laam-laame tu as commis une faute professionnelle et moi j'estime que Pape n'a pas commis de faute professionnelle gis nga li daam doon wax léegi c'est extrêmement important Pape leen rek lay demandé de ñu des dañ ni recel de documents. Mhm. ba a ñu rapport interne de la gendarmerie Pape n'a pas été interrogé sur ça c'est parce que Pape est en prison et je ne vais pas l'enfoncer je ne vais pas l'enfoncer moi lenn lu ñuy waxante du ma ko wax sur un plateau de télévision parce que Pape mën na jooy dëjëm te sur deux yu mu wax c'est parce qu'il en a gardé cinquante lenn rek laay wax c'est pas une menace mm-hmm. mais j'aimerais bien que dans les meilleurs délais ngeen yóbbu Pape en procès dans les meilleurs délais j'aurais bien aimé que ñu yóbbu Pape en procès mu taxaw à la barre du tribunal jamais avocat mi nga doon tudd léegi léegi ne le ferons jamais muy Bamba Cissé il n'ose pas je ne connais pas trop. Mm-hmm. mais maître Moussa Sarr. Mm. je suis sûr que ni bés bu Pape en procès. <laughs> Pape am liberté wax limu wara devant tout le monde. bu ngeen paree. Mm-hmm. di ngeen ne bu vous def. non wadi a du vous rek. Mm-hmm. bés révélation yo xam su dana aw. vous bi daw. gis nga Pape un dem procès. Pape ça fait deux ans. Ah, nous on le sait. pays là.

te nga jàpp ni ni mu toogee woon ak sa président bi muy nekk candidat dina ko mës toogaat ak yow te lépp lu mu mësoon wax muy benn dina si dellu si war alors euh, bala may avance ci Abdoulaye euh, benn da nga am loo wax lu am solo léegi mooy journaliste feu vert journaliste feu rouge est-ce que mën nga ñu expliquer. xam nga le journalisme du du feu rouge mooy. da ngay am document. am xibaar bu wóor mu wóor la ni lii am na nga jël ko def sa poche toog kenn waxu la ñu baal ma si kàddu bi man tàppet la li buma ko waxe ñu jël mo yobuma prison je préfère nek abragal duma ko génne ma jël tek de côté nga am kenen ko xamni journal du feu vert lay def moy ni j'ai vérifié li woor na ma ni que ni am na. Mhm. je publie. lu ci fek fek ma ci. luma ci fek mi non dama la jox ben exemple. Mhm, ay wa ablay a été rédacteur en chef de la tribune. Mhm. ma nek directeur de la rédaction des médias. ma am document bu IGF sur le Prodac l'histoire des 29 milliards. Mhm. mais jour bi ma ko téyee dama ñëw ci sama kilifa sama directeur général man ne li kat yor naa dama ko bëgg génné ci la tribune mën ma boko génné génnee dañuy porter plainte man ne d'accord mën nga ma bloqué ci journal bi mais dama ma bloqué si rajo bi. Mhm. ma dem génné ci radio bi. <laughs> lima bindon c'est tellement joli parce que xamna ni ken lima ma won lu reuy la. Mhm. man ne quest ce que je fais li mënul nelaw ni 29 milliards mënul demee non. ma wo ma ni ko nañ ko génné ci site internet bi impact woo sama rakk Cheikh Mbacke gisee ni que am naa benn feu boo xam ni ni Cheikh ni ma man sama bopp amul ciseau suba c'est à la une nga jël document jox ka hmm. en sachant que ni parce que risque bi ma waroon lan buñ la woowee c'est un document confidentiel foog benn ministre bu ma woo je veux avoir le document bi li nga wax sànq à midi je veux avoir le document man ko awma document Oui parce que boo yóbboo document bi li ñu lay njëkk laaj mooy kan moo la ko jox hmm. voilà te puisque doo nangu wax kan moo la ko jox. Hmm. ñun lay kaw kon da nga rës da def rësal da nga sàcc document bi. très te foofu nag journaliste bu ñu fa mënti jàpp. buñ la yóbboo bu fekkee gor nga. nangu nga la charte de. doo wax buñ la yóbbu yóbbu la. c' intéressant parce que ça ça ça nous pose ñaari ñaari problème il faut ñu waxtaanee ko moy li nga xamné ne état moom. leneen ak nécessité bi nga xamné wala ba obligation. Mm-hmm. bi journaliste bi yor bu amé xibaar war ko génne motax ma wax sax né il faut nga expliquer journaliste feu vert ak journaliste feu rouge. alors Abdoulaye ya nga won ci ci marché bi tay gis nga Sénégalais yi génn and ak journaliste yi marchandoo ak ak ak ñom est ce que japp nga ne su fekkone suñu confrère boobu dafa fauté. journalistes yi ñàkk nañ fayda ñàkk fayda génn ci mbedd mi tey. ah déedéet. naa ni du ma wala ci jàpp waaye jàpp C'est parce que l'état de du peuple, je me dis qu'il est censé être au un niveau d'information Au niveau d'information bi ni mu waxee ci dossier bi def naa ni euh, safaanoo na lool ak li nga ne am te ñu ak ñi nga xam ne ñoo di avocat wu Pape Alé ñu wax ñu dëgg-dëgg. sa réunion ak avocat yaa ngi ci woon waaw li li li interne ba tey avocat yi wax nañu ni. tudd ñu si sax non tudd tudd tudd ñu si sax. tudd ñu si sax li nga xam ne moo di enquête interne. lu ñu tudd moo di lan Pape euh, Matar mhm. mm-hmm. moo di lan mooy document yi nga xam ne réquisition force de police ak groupement national des sapeurs pompiers. <laughs> Oscar Sierra lu tax gars yi di ko fo foowee si mbedd bi. non non mais attends. je dis après nga ñëw Aliou Badara. d'accord si vous l'avez pas dit. non non y pas de je dis si vous l'avez pas dit non, non, si vous l'avez pas. Il y a pas. souci. Euh, après non non non non non si vous l'avez pas dit. après après non, le jox nga expliquer li nga bëgg allez-y Abdoulaye allez-y allez-y. si vous l'avez pas dit je retire. c'est très très bien. en me laissant en retirant je continue dans ma lancée. <laughs> voilà donc euh, li nga xam moi du document boobu. ñëpp gis nañu ni le soir. c'était pratiquement dans tous les réseaux sociaux. ñu ngi Facebook ñu ngi woon fépp ñëpp ko yoroon ci groupe whatsapp yi. gars yi exploité nañ ko à outrance dans les sites dans les quotidiens. Mhm. wax nañ ko si yenn rajo yi wax nañ ko si télévision yi. kon boog bu dee loolu kese la. Mhm. may jàpp ne en réalité le benn wax effectivement ñi ngi ko doon wut. donne cette occasion pour teg loxo. Mhm. ils ont cherché pour trouver la bonne occasion pour teg loxo. waaye tey jii nii euh, boo gisee bu ñu toogee ak avocat yi ñu wax ñu on a très bien compris en réalité le dossier Pape Alé ak lan moo si je pense que aujourd'hui il ne faudrait pas que certains puisse avoir un esprit revanchard revanchard par rapport à qui et par rapport à quoi Si vous demee un à père wala biir benn ngay dégg ay responsable di naan suñu sañoon de Pape Alé peine capitale lañ koy tëj. am mais si mais c'est extraordinaire. c'est extraordinaire quand nous entendons le porte-parole du gouvernement qui a été sans parole. Mhm qui véritablement euh, euh, qui a versé dans une spéculation des mots mhm. au point de vivre une inflation de contre-vérité toxi plateau télévision française du pas' journaliste on se pose encore des questions est-ce que est membre de la paix est-ce que mom, il est même mom, si boppam membre de la donc mais il n'est pas il n'est pas le, le enfin du du mom rek ah bari nañu wax né oui papa Alé du journaliste wala bok lim doon def du liggéey journaliste. am nañu ko wax non parce que lu tax xam nga ku nekkul si corporation. Mhm. yomb na nga wax sa xalaat parce que itam fi tout le monde pratiquement est journaliste maintenant. Mhm. xam nga da ngay toog fële nekk APR kee nek parti B kee nek coalition B bon en réalité peut-être dañuy toll benn niveau boo xam eux-mêmes ils se prennent pour des journalistes. Mhm. mais l'un dans l'autre li am solo moo aujourd'hui euh, par rapport à dossier bi Pape Allais ne saurait se retrouver en prison et Pape Allé ne doit pas se retrouver en prison hmm. et que Pape a amul place en prison tant qu'il s'agit encore une fois de l'exercice de sa hmm. profession de journaliste parce que tam dañu une investigation des hmm. investigation de le journaliste doit dem jukki information pour son propre plaisir mais c'est pour poser le débat public le débat public au nom de l'intérêt général et l'intérêt général voudrait que yenn askan wi bu ko waree xam journaliste bi même s'il faut qu'il puisse donner l'impression de d'avoir franchi la ligne rouge mhm. dina franchir la ligne rouge pour lan parce que askanam war a xam ni lii effectivement am mhm. na ak lii xew na ñu war see mën a waxtaan et puis on on tourne ñi ngi tourner si benn affaire on euh, di wax ay secret défense mais mhm. document boo xam ne xale yu ndaw yi sax ñi ngi ko doon partagante euh, mais ana lan moo si secret défense secret défense par rapport à un document estampillé confidentiel nous euh, retrouvons def retrouver document dans les réseaux sociaux mhm. en réalité dans ce document là je me pose la question de savoir lan aussi secret défense lan atteinte à la sûreté nationale mhm. de en réalité jamono ji tembe li mhm. euh, euh, Moustapha on a perdu près de 24 places si dernier rapport oui. Euh, Reporters sans frontières. Mhm. Le Sénégal est là. c'est avant l'affaire Pape hein, avant le classement. Oui. Pourquoi mhm. ak yoo xam ne lañ ko constaté woon ak bu le signal signalu Walfadjri dagg signal Sen TV. Mhm. yooyu yëpp ñu mais imaginez que jii nous ci arrestation de journalistes dans l'exercice de sa profession. recul démocratique là par rapport à la personnalité aujourd'hui qui incarne la présidence de l'Union africaine. Euh, on l'oublie hein. oui notre président c'est le président de l'Union africaine président de l'Union africaine censé éteindre des feux un peu partout. d'accord Alioune Badara su fekkee préciser man nga dem avant may avancer. non c'est-à-dire que ma waxuma benn yoon euh documents yi ça consistait à telle chose ou telle chose. Mhm. je n'ai jamais dit ça. ba daam waxé man ma tontu mhm. mais waxuma loolu. d'accord donc man dans un débat je ne veux pas qu'on me prête des mots yo xamante ne waxuma ko bu mhm. moi moi j'ai le courage de mes idées donc par rapport à ça l'autre, on peut mais moi j'ai pas l'habitude d'arrêter. très bien Pas motard, L'arrestation, y a arrestation l'affaire Pape Pape Nous avons ñu bari nee reposer un débat am solo qui dépasse même la personne de Pape Alénia, le respect des libertés et particulièrement de la liberté d'expression.

notre sàcc bi ba ñuy wax receleur bi et puis li gënoon facile ci dossier bi ni moy ñu identifier ki nga xamantene mo moo fi wute affaire hmm. vu que déjà mom mi photo mi ko tek ci li nga xamantene ay. est-ce que est-ce que mëno gëm né police xeyna ma nga ci enquête am pour xam ci ci biram kan mo ci génne mbir et loolu moy dramatique. Euh, hmm. bu nekké ñom ñing ci enquête ba nopi jël nit ki dénk euh, sànni ko ci kasso bi. Hmm. et continuer seen enquête da fay poser problème c'est-à-dire bu nekké au principe euh, dañuy respecter li nga xamantene moy principe de présomption d'innocence. Papa Alé est toujours innocent. donc mom tey jii sax ñi wax waxu dañu am ay bracelet électronique parce que dañu bëgg fexé ba li nga xamné moy mandat dépôt ñu wàññi ko c'est-à-dire mm-hmm. dafa am ay beaucoup de contradictoires yi am ak ay euh, contradiction yi am ci ñom ci sen sen seen i doxalin mais Moustapha dafa am lo xamanteni ni yaakaar naa ni euh, il faut que Pape ali xamni euh, réussir nako mm-hmm. parfois dañu naan à ah, quelque chose malheureux bon nekk mon ci manifestation mais image yu ma gis Pape ali réussir na à rassembler la presse -hmm presse bi nga xamante dafa nekkoon. ci ay camp ñii naan ñii pro opposition ñii pro pouvoir tey presse boobu yëpp ñoom ñoo nekk autour de l' essentiel. Mhm. Euh, xame woo fa waa ITV xame woo fa waa Sen TV xame woo fa waa Walfadjri waa des médias. Mhm. xame woo fa kenn tey tey quand j'ai vu Mamadou Oumar Ndiaye euh, doyen Bakhoum. ak euh, Baba Diop ak ak ñeneen ñoo fàtte xëy na ñoo mais mais mais Pape Alé rek moo man lii quoi parce que ces <laughs> gens là mais mais c'est ça donc loolu tey ci honneur la bu demee ba autour de sa personne ñu mën a rassembler li nga xamante ni presse bi loolu aussi day wane quelque part que ni Macky Sall li mu ci bëggoon sax daf ko daf ko daf daf ko échoué encore mi ngi nekk di créé wat ay problème yo xamante ci kawam lay kopp num ko créé ci Guy Marius Sagna ba yóbbu ko assemblée nationale ba mu indi len problème yakana dañ ci si ci mhm. num ko créé ak Ousmane Sonko non la ko nekk di defee jamono ji ak euh, ak Pape Alé Niang mais dossier bi jarul sax ñi revenir ci li nga xamante momo ci nekk parce que ñëpp xam nañ ni mhm. mbirum politique cassé la ay yëfu tapalé la parce que dañ ko bëgg xagn li nga xamante mom moy liberté d'expression ministre bobu nan ngay wax xawma ministre la xam lu mu doon koku en fait dañuy comprendre que ni euh, en fait ñom suñu waxee rek dañuy traduire sen ignorance yaakaar nañu ni journaliste mooy ku nekk ci rédaction bu tudd D-Média wala ku nekk ci rédaction bu tudd Walfadjri wala bu nekk IGFM mm-hmm. yaakaar nañu ni ki nga xamante ni mooy Pape Alé Niang mi nekk ci sitam boobu noonu nekkatul journaliste parce que gis nañu nekkatu ci ben télévision pour yow gis-gis bobu la ci am. non mais kon lool lool gis-gis bu gatt la. ministre mënul mënul gis-gis mënul am gis-gis boobu. malheureusement Moustapha ñooñu bo waxtaanee ñoom nga xamni sen sen sen sen seen dara seen dara sorowul donc ñom fi xalaté xalaatee dafa gàtt. japp nañ ni Pape Alé nekkatu ci télévision yi wala ci média classique traditionnel yi. Mhm. que Pape Alé nekkatu journaliste. que li def ni ay affaire de live la live fi caaxaan la Pape Makhtar mën ko def keneen ak keneen mën ko def d'accord accord Pape Makhtar mën na ko def mais Pape Makhtar bu koy def en tant que chroniqueur la koy defee wala mhm. en tant que citoyen sénégalais tout simplement mhm. mais Pape Alé bu koy def ci rédaction ci site bo boo site d'information générale hmm. mais pap Alé boobu journalisme lay continuer. te té sax bo sétlo len xeyna je crois ben xawna ko wax sànq boy xol continue live ngay tuddu sax boy xol bu pap Alé c'est plus euh, versé dans l'information. Mhm. joxe xibar vérifier joxe plutôt que kuy tok di jangat comme ni nga ko waxee sax. té gis nga Moustapha. Euh, loolu mooy danger bi Macky Sall gis na Pape Alé atteindre benn euh, niveau boo xamante ni moom mënu ko am Macky Sall rassemblé ku ne jël na fi ay influenceurs jël na fi ñu ne def ay live 30 000 vues. ben pap alinya tok di wax ak sénégalais 35000 sénégalais tok diko déglu mais danger man ko waxon la dernière fois lolo du ko ci kasso bi yeen wax sank ba légui Macky Sall Macky Sall c'est comme l'impression que finalement yeen ñep da ngeen bëgg juboné mom nangu nako prison c'est parce que c'est le président Macky Sall mom nangu nako parce que bañ ko poser sans question la fini way bu démé ba def ko c'est parce que gis na lu tax mu def mom aussi lolo la wax hein ah, ah mais su démé ba def ko c'est parce que dafa seuss alors Ramatoulaye ah mais si cette fois si tu l'as dit quand même oui non lolo wax nako <laughs> waaw mais tu l'as dit comme d'accord mais mais d'accord Ramatoulaye pour l'image ah, parce que Abdoulaye Mbow mi koy wax sànq tey jii ñu toll normalement buñ ñu wax ci Sénégal à travers le monde li nga doon gëna xaar moy ñu wax ci né dañuy jouer ak ak je ne sais pas kan la jouer sax Hollande ah, euh, lundi Sadio Mané du football mais tay les médias ku tudd Pape Alé lañuy la ñuy waxtaane journaliste sénégalais buñu def ci kaso est-ce que pour l'image même du du de de la démocratie bu Sénégal ak président de l'Union africaine bi yéwo ci réew mi mënon nañu bañ a agsi Moussefa, euh, par rapport aux images je pense que l'a mobilisation bi nga xamante on se base sur l'image il faut dire que ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie sénégalaise mais man euh, la question que je me pose moi, en fait euh, au-delà de ces images là vous hmm. fekkee dañuy dañuy xool li nga xamante vous avez peut-être ne indi pas aller problème bi hmm. <coughs> excusez-moi li waral mbir mi li waral mbir mi hmm. tey jii sànq benn mi il y a des journalistes feu rouge des journalistes feu vert par rapport également à la euh, euh, divulgation de certaines informations man mhm. préoccupation en tout cas mhm. je me dis que ni bu fekkee yow tu es journaliste nga une bonne information pour peut-être beaucoup durée. il y va de la stabilité du pays ou bien même c'est des informations qui xamante à ne pas divulguer parce que à euh, niveau pour xamante maintenir, divulguer du baax au réew seulement mhm. population et tout ça bu fekkee nag dañu ñëw ci Pape Alé ñu ni euh, recel de documents militaires et tout ça bon document militaire man li ma ci xam boog mooy ci PV bu fekkee PV boobu la ñuy wax. Mhm. man là où euh, ce que je reproche surtout à Pape Alé mooy ci non yi nga xamante ni par exemple cité na leen ñi nekk ci biir police bi ak ñi mhm. nekk ci euh, gendarmerie muy haut grade yooyu. Mhm. mën na yor information tey jii man mën naa am une information boo xamante ni c'est une information de taille boo xamante ni euh, population war nañ ko et tout ça mais je peux bien faire passer l'information sans pour autant citer les personnes man ils sont sama préoccupation. Mhm. est-ce que je dois nommément citer ces personnes là parce que bu moi citer automatiquement je dois avoir des preuves pour prouver li nga xamanteni ni ngi leen citer. Mhm. nañu ci également benen euh, fait bi wax muy ki ci tout à fait mhm. source mhm. c'est vrai que source journaliste journalistes dévoiler mais vous faites au sein de la police ou bien de la gendarmerie nous ngi une enquête mhm. pour que source sources fan la c'est tout à fait normal Nous def ko mën nañu jox Pape la liberté provisoire le temps que nous ni une enquête pour que la la la personne ou bien cette taupe là bi nga xamante ni moo la information man c'est ça ma préoccupation Pape Alenia nous ngi également que est-ce que Les journalistes, liggéeyu journaliste journalistes mais quand même il faut il faut lui reconnaître également certaines positions et c'est des positions yoo xamante maintenir donc koy afficher carrément nous savons également que journaliste là, il a le droit de s'afficher vous qu'il dafa jël pour camp bi ou bien pour camp bële. Mhm. ñun man bok limay wax toujours je pense que je l'avais dit la fois dernière journaliste bo demee bay jappalé ben camp. Mhm. il faut avoir le courage de t'afficher bu laqatu ci ginnaw nan ma ngi fi wala ma ngi fay. Mhm. je pense que Pape Alé c'est assumé parce que quoi qu'on puisse dire.

Vous faites que vous avez information boo c'est assez euh, euh, nous sensible voilà mhm. sensible il faut que je me pose des questions dois sortir cette information là mhm. souvent que gagner également Bonne conséquence le mën un petit population bi ci Sénégal maanaam ci petit mi mhm. donc bu que information bon, il y va vraiment de l'instabilité du pays c'est à moi de juger bon ou pas génnee ko. mais mais euh, ma ma ma ma profité posé wàllu benn question est-ce que information yi ñu wax ne moom la Pape euh, Pape Alé génne parce que quand même euh, député wax na ko sànq. Abdoulaye Mbow wax mu ne waxuma loolu. le rapport confidentiel de la gendarmerie dont on parle. Uh-huh. avocat yi wax nañ man ma dégg sama nopp que ni ñu ci benn yoon papaale li ñu ko laaj mooy affaire Oscar Sierra boobu mooy le document de la police ak benn bu sapeur pompier est-ce que ces deux là menacent na en quoi que ce soit la défense nationale bu dee la grande question non non bu dee moi je dis que non parce que bu fekkee ñi ngi wax Oscar Sierra di wax également euh, brigade comment dirais-je euh, sapeur pompier ak yooyu je ne pense pas mu di information. parce que information yi génn na teewul le lendemain la police a fait normalement son travail Ousmane Sonko dem na wuy yi ñu déglu ko dara xewul ci dëkk bi. moom laay wax te léegi ba ñuy déglu ñoom Abdoulaye li ñu wax sax au fond. Mhm. Mhm. Pape ak Dame li mu wax mooy Pape Alé au fond li nga xamante ni sax yóbbu nañ ko foofu posé wuñ ko question boobu. Mhm. donc ça veut dire également que benn côté ñoom également bu fekkee kon du du du clairement li nga xamante mom lañu accuser Pape Alé lañu ñu fofu di out yenen détail fofu, mm-hmm. kon c'est autre chose kon c'est autre chose là mm-hmm. au moins on peut dire carrément que ni kon ñom ñi ngi jouer également ak population bi te donnant plus que son téléphone nee nañu jël nañ ko jël nañ ko mettre nañ ko sous sel mbir voilà mm. donc enquête yi ñi mënee il nous la population on a le devoir de savoir également nous, enquête vous bu que a hmm. cette personne là qui a fait fuiter l'information, on a le devoir de savoir le droit plutôt de savoir kan là? ñu divulguer ko sa son identité et tout. Hmm. té également bu féké nak gis nañu ni recel bobu ñukay topé la source mi ngi foofu ci ñom hmm. ñu bayiko également le temps que enquête bi. laay poser débat bu bu intéressant xamna après Ben Mokhtar ak Abdoulaye dinañ ci ñew moy euh, ce que j'appelle un peu l'éthique de responsabilité c'est-à-dire que amna information. Euh, damay xool ba xam est-ce que mën naa taalum réew wala déet mais après loolu dina ci ñëw daam euh, li Ramatoulaye wax euh, sànq si bari nañu koy reprocher Pape Alé Mais hein, il ne faisait pas am na il ne faisait pas du journalisme am ñu il ne faisait pas que du journalisme da doon def journalisme ba pare di ci doole leneen maanaam di jàppale benn camp contre beneen camp est-ce que lecture boobu bu ñu a défendre la. waaw xam nga Ramatoulaye man lu wax ça m'a choqué quoi franchement bi muy wax dafa mel euh, bon pour moom euh, dafa japp né pap Alé dafa far ci ben camp alors que man duma journaliste. mais bari na ko wax. wa non limu wax leer na c'est-à-dire que moom pour moom pap Alé dafa far ci ben camp. Mhm. wa donc euh, c'est-à-dire que mom day relayer le discours de Benno Bokk yakar <laughs> parce que mi man yow par exemple man japp na ni faro faro Benno Bokk yakar mais man damay dajeeg nit ñu bëri ñu ma fofu nga far. Ah. yow ramatoulay loolu lañ may wax ci mbedd donc non attendez rek attendez rek bàyyi ma wax.

wax ba ban analyse gëm ne da nga faral nguur gi mais bu la neexee man man li di wax loolu laa gëm waaw bu la neexee ci libre nguur gi nga faral loolu laa gëm ci libre waaw doucement gis nga amatulaay bi ngay départ da nga ne woon gëmoo non non may ma rek may ma rek ma ñëw Moustapha sama temps de parole la moom moo ma dagg te pourtant sànq yow bëggoon na na ma bàyyi rek ma moo tax bi ngay départ da nga ne gëmoo ne ah, loolu la mais tontu nga après nga ñëwaat ne loolu laa gëm léegi bàyyi ma ma wax léegi man li ma gëm mhm. moins que ni Pape Alé au contraire li muy def moom la journaliste d'investigation yi ci àdduna bi yëpp di def Pape Alé Niang li muy def commencé ko ci nguuru président Macky Sall nguuru président Ablaye Wade ñëpp gis nañ ni ba muy nekk euh, di def ay revue de presse am ak et cetera nguur gi dañ ko doon diaboliser di jàpp contre Pape Alé Niang lu ne waxal nañ ko ci nguuru président Ablaye Wade mhm. Macky Sall mii bi ñu ko woowee. di ko jéem jaay doole pap ala Niang bok na journaliste ji leen doon couvrir taxaw di fësal ne dañ koy jaay doole ñom Moustapha Cissé Lo du ñu wedd li may wax biñu ñu ci loolu biñu jàpp Khalifa Sall fi ñëpp dañ ne woon Pape Alé Khalifa Sall la àndal bu ngeen dee fàttali ñëpp dañ doon wax ne pap ala Niang Khalifa Sall lay àndal amna sax ñu doon wax ne jabaram sax day liggéey maire yi Dakar ak et cetera di jema takal pap ala wax ne mo Khalifa Sall la ànd. ndaxte lolu xewon na lolu xewon xewoon na fi yàggul. donc tey bu ñu demee ba ñu koy wax kon ne tey Sonko la àndal ça veut dire que Pape Alé est dans son rôle voilà c'est un journaliste émérite très bien formé boo xam ne li muy def da ko mën ci kàttanu yàlla parce que nag yaay une belle génération bu fi jaar Moustapha yéen seetaan naa bi ngeen di xeex 2004 benn photo boo xam si yéen a ngi nekk euh, très jeune xiif <laughs> waaw mel na ñu xiif yow Pape Alé <laughs> ci photo bi ngeen mel na ñu mais aussi très jeune très jeune parce que 2004 ak c'est combien 18 ans hein. c'est 18 ans. mine de rien ñu taxaw yore seen i pancarte mu Pape Alé Niang ñu tëj Diagne j'espère que ñëwoon na ci marche Madjambal, Madiambal non non ah mais war na ñëw. parce que mon mobilisation exceptionnelle bi ko nit defal en 2004 vous étiez très jeune. taxaw Abdoulaye diko di ko jaay doole ngeen taxaw ni dañ koy génn. mais jeune journaliste def nañ ko tay c'est très bien mais non non non Moustapha c'est important. c'est-à-dire que gis nga nit dafa am élégance touti Pape Alé Niang nekk un jeune journaliste di xeex pour pour moom man gëm naa ne ko téyee dafa war a ñëw taxaw parce que patron de presse gis naa leen fa tey. wa mais pourquoi mënu ñëw cest à que gis nga Pape alagna encore une fois. Mhm. ci rôle la nekk maintenant. le doc les documents yi nga xam si moom lañ les documents administratifs yi ñuy wax moo tax Pape Alé ni nañ ko wax yan document la c'est important xam nga question Pape Alé bi li ci nekk mooy moom bu ñu nee Oscar Sierra bi la ñëpp xam nañ sénégalais ni ñëpp ñoo wax ne Pape alagna ñaa génn parce que ñëpp gis nañ ni génn ci mbedd bi sénégalais yëpp yore ko bi ñu waxee également document euh, sapeur pompier yi tamit ñëpp xam nañ du Pape Alé Niang ko génne ñoom bu dee document bi nga xam ni nanguwuñ cee waxte moo leen metti parce que document boobu Pape Alé Niang pour man responsable de mu jël bu rëy la xamul tax dañoo nekk ci réew moo xam ne koo waxal mun la réew mi xamal lu ko nar a taal ñu jéem a Ousmane Sonko mu nekk candidat sur le dossier Adji Sarr dëkk bi dafa nar mais kon su amee un document bo xamni document bi dafa leral ni complot d'état mo am le procureur de la république mo jël ay photo maître Assane Dioma ndjay li un document disculpatoire wa may ma way un document bo xamni buñu ko leralé dana tax xex dootul am ñepp xamni kon complot la ñu jall ci lenen pap Alé xam loolu denc ko du ay nit deewee senegal da ci am responsabilité loolu moo pap Pape Alé Niang dafa juger parce que ça ne pas dire lu meuna tal rew au contraire mais so xamé lo xam tamit boko waxul meuna tal rew nga nëbb ko ba mu taal réew responsabilité Pape Alé a un document ngay les cinq gendarmes gradés yi def lu l'enquête, préliminaire de la gendarmerie mais Pape Alé a ñooñu la cité dafa rapport am rapport Pape Alé Niang parce que la veille Ousmane Sonko a été entendu par le juge d'instruction. Ousmane Sonko le lendemain mu def conférence de presse am ne document bi man maa juge d'instruction. ni ko un complot kon Ousmane Sonko moo moo njëkk a wone document bi. moom la ñu waroon njëkk a jàpp oui. ah xanaa dañ koo ragal Ousmane Sonko moo dem ci juge d'instruction bi. génn la rapport d'enquête interne de la gendarmerie teg ko ci table ji. ni ko rapport baa ngi nii muy leeral ni le procureur Bassirou Gueye moo jël ay photo pornographique boo xam ci ci ci salon de beauté bu tudd suite massage. la ay xale yu ko mu duggal ko ci pour corser le dossier demander le commandant Mbengue ne ko changer ma rapport d'enquête enquête préliminaire bi lu cay taxal Ousmane Sonko bayiko ci waye lepp lu koy setal dindiko ko rapport bi moko wax. te bi Ousmane Sonko di wane procureur ngi loolu loolu mu leer naññ devant le juge d'instruction il a dit te Pape Alé rapport bobu la yore di lire mais Ousmane Sonko ko wax 2 jours avant kon Pape allez buñ ko ci jéemee jàpp ci loolu ci ay tapalé la ñim doon lire ma ni man nañ ko laaj ne ko légui est-ce que léegi yow euh, document yi nga yore ak lim tur yi nga lim Pape da doon lire bu ngeen fàttali ko Pape xam lu mu def dafa jël liir rapport bi mota à ñom ñoo la gëna xamné rapport bi mo leen décourager parce que rapport bi dafa léral li Sénégalais yépp gëmoon mom la rapport bi ne bàcc mu leer nañ ne c'est un complot ourdi au sommet de l'État avec le procureur Bassirou Gueye avec le le le le, le commandant Mbeng ak ñi leen ko doon defloo ñu teg rapport bi di ko jéem a manipuler pour mën a taqal Ousmane Sonko mu leer nañ bopp sénégalais yëpp ak ñëpp mu yàqu seen xol jeex ñu mere Pape Alé Niang ndax li mu ko leeral sénégalais yi tekki ko ci kàllaama Kocc Barma bu leer nañ sénégal yëpp gëm ni kon complot bañ doon wax te man dàmbuñ ma bokk ci ñi ko jëkk a wax euh, euh, bi coow mars bi amee loolu. molen leen loolu lañ meree. Pape d'accord Dame Mbodj maa wat ñëwaat Lol, loolu ñi mun cee wax Dame Mbodj s'il vous plaît s'il vous plaît maa ngi ñëwaat alors Alioune Badara euh, euh, Badara Djouf, euh, document yu jar a waxtaan la parce que ñu bari nee nañ bu ñu le document de la gendarmerie mën nañoo jàpp c'est un document militaire mën nañu jàpp ne c'est confidentiel secret nangam nangam mais su fekkee ne li avocat bi wax la muy ñaari notes yooyu parce que c'est deux notes ah yu génn. Nous bari ça menace en rien du tout la sécurité nationale lan moo poursuivre un journaliste pour ça. bon euh, tout d'abord euh, madame, c'est vrai que au Sénégal. Euh, lay pour layal tout simplement ah bon mais mais ba may quand même wax naa devoir de solidarité moi c'est journaliste là je dama comprendre si corporation la ñu ñu devoir de solidarité na protéger mais en âme et conscience ne Pape pas def duñu il a franchi la Il n'a rien fait. Il a franchi la ligne rouge, ça c'est clair. Il n'a rien fait. Mais, mais vous savez que wax a fait solo. Pape Allé, moi je ne dirais pas que ce n'est pas un journaliste. C'est bien un journaliste. Il y, a, il y, a, des journalistes qui font de la politique. Nek ñun, nek opposition, nek Il y a même du journalisme d'opinion. Oui, mais, mais il, il, il daam mii ba muy door a génn si tele yi di wax dañ ko jàppe woon comme chroniqueur farul fen da doon nee ne fii laa far wala fee mm-hmm. mais ba ñu demee ba bëgg a defar ay liste député fa la feeñe ndekete boobu daa bëgg a doon député. non mais tu n'as rien compris laa far. tu n'as rien compris. non s'il vous plaît mais mais mu continué xam nga booy far booy far. waaw xam nga boobu boobu ndekete da ngaa far. man man faruma ci benn parti dañ la jàppoo non j'ai toujours dit syndicaliste la. buy def ay chronique après après non il faut nga jël non day ruube day ruube li muy def non non honorable li ruube la ruube li am rek loolu ruube la de. <laughs> léegi nag c'est la même chose. s'il vous plaît Dame c'est la même chose Pape Alé man si angle boobu laa koy jëlee. Mhm. Pape Alé effectivement nekkul opposant rek mais dafa faat si ku ñuy wax Ousmane Sonko. ah oui. ah oui ah oui foo ko parce que xam nga li la koy won mooy Pape Alé kon ba muy Macky Sall dafa faroon ci Macky Sall. en 2011 mun nañ ko jàpp dafa faroon ci Macky Sall. ko jàpp ku faroon ci yéen da ngeen jël nguur gi ba na àndul la yéen mun nañ ko jàpp journaliste yi àndoon ak yeen yépp te Macky Sall dafa ragal journaliste yi ña nga fess ne guux ca pale mais journaliste yi ànd ak Macky Sall yëpp am na ay responsable. daam may ko mu may ko won. wax oui ce qui est sûr et certain. man ne vais pas parler de journaliste parce que journaliste quand même da ngay da ngay da ngay wala nga école boo xam da lay diplôme de journaliste. Mhm. nga donne mhm. ko. mais moom dafa far donc Il a yu bëri chronique yu bëri. Mhm. yu si gëna il attaque un parti il attaque l'état et il protège Ousmane Sonko même il il le protège. Eh, si si si si yeneen opposants yi mu yi mu àndal il avait dit que ne xamuma xamuma kii xamuma Ousmane Sonko Ousmane Sonko sax moo ne Pape Ali maa ngi ko xam en deux mille deux mille treize eh, Pape Ali génn maag maag Sonko ñi ngi xamante en deux mille cinq donc foofu seen wax yow. parce que xejna dañuy dégo des seeni manigance ak mais nous doon ke dañuy mais mais nañ japp ne ça ne passera pas dam hmm. li taxaw ak li taxawul du yow ya koy wax du mais xam nga le problème Pape Alé xejna ñun sax dañu dañu dañu am fit rek du hmm. mais problème question la bo wax dañu justice tay ji mu régler ko parce que ma ne ko foofu la ñu toll boo gisee ñu bëri ñoo xamante ne ni duñ si wax mooy euh, l'instruction est en cours donc mënuñu si avancer yenn yenn xóotal yoo xamante ne je pense que du ñun du suñu rôle mais li gën a am solo mooy euh, Pape Matar dañ da fi wax léegi ne y a un ministre ignorant mais ce ministre là s'il était ignorant dëgg-dëgg kon tey kenn du ko def ministre deux fois ministre de la République deug deug té sénégalais yi manko nañu né c'est un jeune euh, pétri de talent bo xamante limuy wax sénégalais yi nangu nañ ko deug nit ñi naw nañu njàngam naw yaram naw téginam donc lolu vraiment bokay bokay wax c'est deug deug c'est sous estimé parce que quand même ku la deug nga koy wax danaan la yow bi li ngay wax nii euh, ay waxu ay waxu picc la nan c'est un ignorant c'est un nangam ak nangam lolu mom vraiment euh, té et puis xas doomu aadama dafa baaxul euh, euh, Sall c'est le président du Sénégal donc le plan am ci réew mi daf koy engagé Dame, man foofu laay nekkul ne Macky Sall. kon yow sa argumentaire bi yëpp Pamatar Dame Pamatar Dame Pamatar Dame. <laughs> non mais dama koy expliquer. <laughs> ma ko tontu de. yow bu nekkee tontu lay xaar dina ko xaar bu suba de du ko ah, tontu de. aywa aywa aywa Alioune Badara pour ñu avancer un man <laughs> te bul gedd rek bul gedd yow. non jamais de yàlla xam na ne moo ko tontoo bu géer gi. <laughs> jamais de la vie allez-y Alioune Badara allez-y. continuez sëñ <laughs> ñoom Moustapha ñi nga xamante <laughs> fii ba mu fii ñëw ëpp na fukki at. allez-y allez-y allez-y. kii xam na ma. mais ay gedd ak nangam sangam dama la ne. yéegalil bu may wax ne président Macky Sall. moo ne woon bi mu toogee si nguur gi ba léegi journaliste mosuñ ko jàpp Sénégal.

justice justice mhm. donc c'est ça c'est ça la question d'accord alors Ben le, le, fait de nous euh, arrêter journaliste poursuivre pour diffusion de fausses nouvelles euh, euh, publication de documents estampillés secrets violation de la du secret défense etc est-ce que quelque part traduit le retard euh, ci Sénégal ak fi aduna toll nga xamné légui euh, jamono ji euh, lanceur d'alerte la ño xamné ils peuvent être dans tous les secteurs de vie de la nation suñu gisee lo xamné dañu gis né djubul dañ koy àggal ay journalistes ñu ci liggéey Pape Alé mi ñuy wax il fait partie d'un consortium de journalistes yo xamné c'est du journal d'investigation est-ce que quelque part ñun amuñu retard dans la mesure où dañu yaakaaroon xeyna né le journaliste de compte rendu rek la wara def dans ce pays et que nous amul de risque. en fait nous sommes en avance par rapport à nos gouvernants. à nos gouvernants journalistes nous sommes en avance parce que euh, damay déglu honorable muy wax man j'aime pas tout personnaliser les débats mais honorable dafa femme ministre bu nek ci président Macky Sall Latif ministre oui ah, Latif qui a été notre directeur général à Sud hum. qui a été le professeur de Papa Alénia. et de moi-même tout à fait Latif li mu nous bi sur l'avion de commandement avion présidentiel

te pourtant kenn arrêté wu donc journaliste di def lu ni mel yàgg na ci biir réew mi te bu ko journaliste defulee war nañ ko kholat. maintenant bu ngeen di diriger ay nit aussi ben moment il faut que ngeen taxaw ngeen khol, ni ñuy diriger fan la ñu toll ci ban état d'esprit la ñu nekk dama lay woo ma yàlla chance chance la koy tuddee nga toog ak Pape aller, di nga comprendre ni muy Ousmane Sonko muy kenen, ken feesul bëtam Ousmane Sonko a parlé de Pape Alé à sa conférence de presse pendant 28 minutes mais Pape c'est comme si Sonko n'a pas parlé de lui L'homme mu seq ak moom moom la ak Idriss Seck moom la Macky Sall c'est que il lutte contre l'injustice. c'est tout man gëm vous ni bu fekkee dafay am xarit ci homme politique yi Khalifa Sall nekk na xaritam man c'est ce li ma gëm maintenant mbir yi ni ñuy doxee je dégg naa sànq Ramatoulaye di ko wax dañu nekk si réew mu metti li nga wax daam léegi ni ka noonu rek te da nga far li yoog lii mais fii kenn ku nekk suñun benn moment dañuy toog ne la da nga far man Moustapha sama rakk la

mais loolu c'est normal que bu ñu demee ba tollu fenn ñu war leen delloo njukkal moo tax ma ni gëmuma ni far daf si am c'est que kenn ku nekk ak sa degré d'engagement kenn ku nekk ak sa réew li mu la jaral kenn ku nekk ak sa métier li mu la jaral man foofu rek laa teg mbir mi gis nga le jour où j'ai entendu quelqu'un me dire Moustapha Diop hmm. dafa bokk ci les pions de Sonko les conseillers en communication de Sonko je dis c'est parce qu'il ne connaît pas Moustapha c'est que tey ku fi nekk analyste soit tu es dans le camp du pouvoir le peuple de lay unir dafa naan kii du nit ku baax du gor populisme bare soit nga dem ànd Ousmane Sonko wala opposition bi ñu ni kii journaliste bu bi mais journaliste ki kay wax ni que tu es bon ou tu n'es pas bon moi c'est père. Détail.. quand j'ai vu à la marche Baye Omar Gueye ma avec sa maladie DG de Soudefem. Je ma xam Baye Omar ni mu mel ci principe mu dox sur presque deux kilomètres pour Pape ni ma bu fi Babacar da fay ñew dox ak ñun parce que li combat de principe la ma xool nday roxey mbuj cette dame la xawma kagn la laa gëj gis si ma ñew ni que mais grande sœur loy def fi mun notre profession yi menacée. j'ai dit mais nday roxey mais ce que Pape a fait on dit que c'est pas du journalisme mu ni ma si c'est pas du journalisme yeen ñep xoti len sen carte de presse ngeen dem tay nak dañu toll situation bo xamni c'est extrêmement difficile difficile parce que Nous ñun duñu géwalu Pape Alé on n'est pas là pour le défendre on défend juste quelqu'un qui pour nous a fait son métier correctement gis nga que euh, si sa ak sa mbokk yi nek au pouvoir dafa femme benn journaliste tay bu wax ben affaire ci Pape mhm. ni Pape ne faisait pas du journal Il dem engagé wu fenn oui y a un confrère qui l'a dit ma xol ma xamni que ni si Pape s'est engagé politiquement Mom, c'est un mercenaire journaliste parce que simplement si bien métier parce que disons euh, euh, que on a besoin d'une presse très forte moment vu le président Macky Sall le candidat Pape taxaw le président Macky Sall ko rappelé si ses premières décisions, il a fait revenir Souleymane Jules Mais si papa Ali ne fait pas du journalisme, qu'est-ce que Souleymane Jules Diop faisait à l'époque Tous les mardis mu nekk suuf Sénégal moo fi live de saaga moo ko fi indi. dem na ba Macky Sall la moo boobu si moom laa ko njëkk a déggee. lu mu amul. mais daf ko jëli fële mu Il a indi ko mu nommé mais pourquoi Pape n'a pas été nommé parce qu'il a préféré rester journaliste. xam nga ñun tey enfoncé wuñu le clou. ce qu'on demande à l'État c'est très simple et je le dis encore une fois Papa Alé ñaanul nous lenn lay demander qu'à ko le procès normalement

programme alors euh, euh, dafa am lu daam mi ngi tax may fàttali bu lu wax est ce qui me semble important Ben Mokhtar te dama bëgg ñu taxaw ci un peu bala ñuy dem ci Abdoulaye Mbow. à partir de quel moment le journaliste dit man kat amna information bi vérifier nako xamna né amna c'est des faits réels mais mënu ko génne pour x raison. non xam nga information fay am itam valeur ajoutée. Mhm. valeur ajoutée moy man li ma téye sama loxo war naa ko génne wala waruma ko génne nga tok nga xol déjà vérifier nga ba mu na ni que ni lii nga yore ni mom wóor na. Mhm. léegi nag lan mo c'est du béton comme on dit. Ah. bu fekkente ni que ni da nga nek dans une rédaction motax pap euh, Matar remarque am c'est très pertinent bu fekkee da nga nek dans une rédaction la rédaction est souveraine da ngay ñew nga tek ka sur la table. Mhm. rédaction yëpp noonu la fonctionner le matin bu ñu dañuy tek ku nek lan nga am. nga ni man li la am ñun la tu as vérifié ñun la waaw tu as que vérifier nga expliquer gars ils sont convaincus ñun ça nous engage ñun ñep nañ leen dem parce que le jour où on nous a amené en prison ak Pape Alé ñun ñep mhm. mais c'est parce que. nous, nous, on a demandé à Ibrahima Gassama a appelé pour dire gars à l'époque Latif Koulibaly, bi moo directeur général il est venu nous dire. Mhm. Salif Sadio Abdoulaye Wade déclaré que ni dee na son ministre de l'intérieur Ousmane Ngom tant que gisu leen Salif Sadio hmm. considérez que il est vivant. qui dit ça Latif. Latif Koulibaly. Hmm. tant que considère que ce pouvoir là est en train de mentir parce que le pouvoir n'est pas là pour informer un jour Ibrahim j'ai l'interview de Salif Sadio. le mort il a parlé ñu prend les éléments nga Dakar il est venu en week-end ñu très traité que samedi dimanche lundi ñu ne que 6h45. ak la responsable de toute la rédaction. le lépp la engagé Ablaye wad envoyé ministre de l'intérieur ñep lañ jël yobbu mais biñu démé Babacar Touré a rencontré parce que itam parfois njiit bi ngay dajeel c'est important Babacar Touré a vu le président Ablaye il lui a dit tu dois les là. donc ministre de l'intérieur a déclaré Salif Sadio mort jusqu'à présent il est encore vivant mais ñom dem nañu ba tek loxom ci sa loxo ci Salif Sadio mi nga xamni yow té force de défense et de sécurité gisunu ko Abdoulaye ni ko donc coow li suba ba léegi lool la mu ne waaw ko il faut les libérer ces jeunes sont à féliciter mais loolu moy état en fait. mais Ben est-ce mon mën la la yay continuer yaay te surtout. dañu gëm ni même buñ ci waxul moy aale kalet ji pour yow. Mm. est-ce que Pape Alé am information bu parce que Sénégal ku dul naa xam nga ni dossier bi mën tal taal dëkk bi tigi 3e mandat bi tan nit ñi sax dañ nan la 3e mandat bi.

La question que vous avez est-ce que le document est authentique, fiable ou pas Mais nous avons dit que vous vous demandez, vérifiez, si vous voulez que le document est vous c'est authentique, l'ici que c'est fiable, tu passes à la diffusion. Vous faites que vous faites que vous faites Si vous faites que vous avez que vous faites que vous avez que vous faites vous faites que vous moo tax qui ni ci ay principe la ñu Et la responsabilité maintenant des journalistes mais justement justement honorable député le journalisme c'est un métier qui est une responsabilité kese la vous voulez assumer responsabilité vous bàyyi vous nga dem responsabilité kese la amul parce que ñaar moo am le palais de la république ou le palais de justice ñaar yooyu rek am na palais de la république Le palais de justice avec le palais la ñuy lekk lu député Puritain Fall doon wax. Hmm. le journalisme alimentaire <laughs> très bien alors Ben, lu benn wax que les journalistes war nañ ko dégg le pouvoir n'informe pas le pouvoir communique. et c'est différent. lu lu jara lu jara Abdoulaye euh, député Aline Badr wax na il comprend que euh, journalistes mobilisés mobilisé euh, pour soutenir Pape Alé pour le principe par devoir de solidarité est-ce que les bi nga doon da ci juste par devoir de solidarité. non ce n'est pas C'est loin d'être euh, par devoir de solidarité parce qu'on honorable insisté na si ñaari kaddu yu mu jël nii comprendre na taskatu xibaar yi. c' C'est par solidarité par corporation. damay jàpp ni ba japp jàpp Bougazelli pour trafic de faux billets ben député sañu tour yëkkati cadeau pour défendre Bougazelli waaye ñun solidarité wu voilà non solidarité amu fa. Hmm. dafa ne jàpp ni loolu bu doon solidarité bu doon corporation rek ak collègue ak collègue. Hmm. dafa naa ne kon ñoom ñu jóg pour jàppale ki nga xam ne dañ ko jàppoon si jamono jooju pour trafic de faux hmm. encore une fois dafa dépasser le principe de solidarité aujourd'hui euh, damay damay damay jàpp ni c'est la démocratie de manière générale si la mobilisation bi journaliste c'est véritablement par rapport à la défense de la démocratie c'est par rapport à la à préservation des acquis démocratiques mais c'est surtout pour fousser li nga liberté de la presse té ñu gis effectivement en 2022 Sénégal euh, euh, en réalité on donne l'impression de marcher en avant et de courir à reculons parce que dañuy japp ni président Macky Sall honorable wax na ko waaye wax ji booba léegi. Mhm. parce que dafa ne su ma sama nguur do leen euh, euh, du euh, gisu leen benn journal bu dem prison mais dafa ne ci sama nguur te do leen ko gis. daf naa ne honorable waroon na yeggali wax jooju bu yeggaleen wax jooju kon dañuy japp ni effectivement jëf ji tay safaanoo dë safaanoo na ak deug deug li nga xam modi modi la réalité et je dis encore une fois. Hmm. mais mais est ce que ba nga avancer Abdoulaye est ce que lim wax aussi jarul ñu ñu déglu ko moy le fait de dire que ci sama nguur. Euh, journaliste bi prison ça pas dire que les journalistes bu veulent bëggee taal aussi de leen di bàyyi def non non non euh, moom de mon sens, le ko mais quelque part. il y a des limites yoo xam ne xëy à ne pas franchir. non loin de là. Mhm. encore une fois le journalisme c'est le principe. Euh, euh de la responsabilité. Mhm. te gëm les ni au Sénégal la majorité sinon la quasi-totalité c'est des journalistes responsables parce que yow miy toog Moustapha ma xam si dara wala ben yoon mi toog te benn xam si dara. Mhm. yag nga jot ay information ultra sensible yo xamne tu as préféré véritablement euh, ubbi tiroir dugal ko fa mba nga xoti ko balay kenn du ci jot. Mhm. pour lan parce que juge nga en toute responsabilité que ni li effectivement su ko guéné amana na lo xamne ne war na ko mën a jur. Mhm. waaye journaliste est-ce que yéen a ngi fàttaliku benn euh, guddi gi ñu tàggee Wade. effectivement ah. les journalistes avaient refusé de donner cette information. effectivement effectivement te boo alors mon président le la Macky Sall du premier ministre.

Mustafa bir na ko ni li su ko génnee ñaari koñ ak koñ dëkk ak dëkk daañu jàmmaarloo pàkk ak jaaseeg fetal dina fa génn loolu xam nañu loonu lan moo di responsabilité journaliste bi mais du point de vue déontologique encore une fois du mhm. point de vue déontologique Papa Alé Niang amul lenn loo xam ne dañ ko war a mën a reprocher wa ilaa beneen journaliste boo xam ne jukki na xibaar yoo xam ne mhm. tas ko si euh, si penc mi par rapport ak li nga xam ne mooy poser le débat public mhm. au nom de l'intérêt commun et de l'intérêt général parce que itam askan wi dafa wara xam les autorités ñom war ñu vivre en vase clos lépp li nga xamne ne xibar ak ñu ñu dal di koy teunk te encore une fois boy xol ñu ñuy en réalité dama nan Sénégal euh, on a un regard réducteur parce que duñu xol li xew à travers les médias à l'international mhm. parce que li ñuy reprocher Pape tu vois dans les plus grandes démocraties actuellement dans les dans les plus grandes puissances économiques et militaires actuellement da ngay gis ay taskati xibar di def la même chose parce que qui nekkul euh, honorable de journal journaliste honorable xamul lan mooy genre journaliste qui est ce que nous allons la définir lan lan la chronique. Mhm. est ce que nous allons la définir lan moo éditorial. est ce que nous allons la définir lan moo di filet est ce que nous allons la définir lan moo di analyse wala lan moo commentaire. Mhm. su su boobaa tu verras un mélange des genres Quand journaliste bi nga xam ne même procureur bi jàpp Pape Alé comme comme comme disait un doyen. Mhm. Euh, Abdoulaye Ndiaga tout le monde sait écrire mais tout le monde ne sait pas écrire comme un journaliste. non De façon que xam journaliste bi bu jotee xibaar mu document il pour mais eh, Abdoulaye est-ce que le fait que le fait que maintenant euh, que tout le monde devienne journaliste même autorité les journalistes euh, c'est un peu du n'importe quoi xam euh, fàtte c'est euh, l'écran la majorité ni koy des gens responsables qui connaissent leur métier du quoi def du quoi de ci mhm. mesurer la responsabilité information l'information information effectivement te es naa ni euh, autorités yi xam des journalistes ñoo ce boobaa da leen ñuy utiliser les journalistes hmm. parce que tey tu as vu un communiqué bo xamné ah euh, soi-disant et soi-disant journaliste ñoko ñoko ñoo bind ñoo xamné ne xamuñu sax l'utilisation des articles le wala la fa lañ koy placé hmm. xamuñu sax la correct la wala le correct la xamuñu effectivement concordance des temps bi transition yi zéro un texte alambiqué totalement alambiqué hmm. pour lan pour xeex li nga xam ne masse de journalistes bi nga xam ñi ngi dans ce combat là amna ño ñoo ñi ngi koy wax ben mi koy wax un confrère wala des confrères yo xam dañuy dañu naan Pape de journalistes, journaliste Pape encore une fois que je connais très bien il n'est militant d'aucune formation politique il ne soutient aucune personnalité politique de manière tacite il fait son travail de journaliste Ben, yaa koy wax mais 2004 quand Idriss Seck euh, euh, vivait ses déboires avec le mhm. président Abdoulaye Wade, mhm. quelle était la position de Pape Allé Mais allez revisiter l'histoire. Allez revisiter l'histoire. nga ba ñëw ba si Karim Wade ba si Khalifa Sall. Mhm. fii mu fu may taxawee te dañ ko tudd mu di doyen Abdoulatif Oui. bañ ko bëggee xoqatal gouvernement bi taxaw ba ñu ne kii ñu ngi koy waaj a jàpp mais la société civile en compagnie du Parti socialiste et de son secrétaire général, mhm. de l'Alliance des forces de progrès avec, le président Moussa Fagnas, mhm. de la LD avec du temps d'Abdoulaye Bachili, le PIT avec Ahmad Dansoro, mhm. le RTS avec Momar Sam, l'UDF Mbolo et autant de partis qui dans l'opposition, mais ils avaient organisé un jury populaire un jury populaire. Non pas pour se limiter à innocenter Abdoulatif Koulibaly, hmm. mais pour lui accorder... C'est dans l'affaire Soudatel. Voilà pour lui accorder. j'étais au voilà. jury populaire. Le jury populaire, on l'a organisé à l'hôtel Ndiam. Voilà, pour, lui accorder, pour lui accorder on, on non Donc, quelque part, le, le, le, le, fait que, qu'on, veuille dire aux journalistes, oui, vous euh, je sais pas, vous en politique avec eux, dañuy créer ben complexe. non non À mon avis déjà dans l'affaire Soudatel. Euh, mais Assane Dioma Ndiaye mi ngi koy fàttali bari dem. le jury populaire moi je suis le président. mais ñi nga wax ni ñoo fa effectivement ñoo fa mm-hmm. donc en réalité des fois il y a une certaine manipulation que la presse ne devrait pas accepter. il y a une forme de corruption des mots, je dis bien une forme de corruption des mots, mhm. que les journalistes aujourd'hui, dans l'écrasante majorité, dit, fort heureusement, mhm. l'écrasante majorité a formé un groupe homogène. C'est un groupe impénétrable, mhm. loin des compromissions encore une fois ñi nga xam dañuy nous casser la dynamique bi c'est encore que nos jëm si li nga xam parce que moom ñi ngi wax ay waxu procès ñun on réclame la libération immédiate et sans condition gis euh, de de de notre confrère et frère voilà mais ah, dans tous les cas mmh. euh, te encore une fois, fatina fait au-delà des deux affaires dont on parle. relativement à la réquisition. avocat yi nañu ni que interroger sur l'affaire Mankabou. l'affaire oui. sur l'affaire Mankabou qui date du mois d'avril je pense. voilà Mankabou, quand, kañ alors qu'en réalité jamono dit mais, li quand xaar kañ le procureur je vais une vidéo de 13 minutes. Mais depuis lors, est-ce que tu as une minute de cette vidéo dont on parle Je n'ai pas vu 10 secondes. Voilà, donc on a C'est normal qu'on la divulgue. Non, je dis, non, non, je ne parle pas. Je dis, encore une fois, les conférences de presse, non, on avait dit que le procureur est convoqué à une dite voilà. voilà. Mais dans tous les cas, l'UGI Khara, moi que nous, nous avons pour le moment, ben, ben, ben, une minute sur vidéo. Et aujourd'hui, l'UGI Khara, de Gentan, je sais Modi, dit ñu éclairer la lanterne des Sénégalais sur l'affaire euh, si Fatou Mancabou sur l'affaire des 14 personnes tuées au mois de mars 2021 ah, ah ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xew na de loolu solo euh, que ñuy attardé aussi li nga xam ne ay pas l'affaire sous un autre angle est-ce que euh, dans ce monde là de de de lanceur d'alerte de journalistes d'investigation est-ce que suñu institution institutions, qu'il s'agisse de de l'armée wala beneen nous réajuster du point de vue communication bañ a euh, euh, rek comme dans les années je ne sais pas 90 2000 am y a boo xam ne comme ni nga ko Moi, moi je mooy def les communiqués de l'armée di wax li ñu bëgg a wax te yam ca journalistes enfin j'ai l'impression qu'il ne fonctionne plus comme ça nekkatuñu di xaar euh, pas wala porte-parole du gouvernement wala porte-parole de la police di leen wax ne lii mooy xibaar bi wane leen ko te yam est-ce que mmh. dans ce monde de lanceur d'alerte ñu avons une communication en tout cas ñi ci institution mais xam nga euh, communication nous nous parce que en réalité l'État euh, la état communiquer mais euh, si nous muy communiquer nous souvent des nous du Nous pour wax li nga travail journaliste à chaque fois révéler parce que de transparence mais de transparence agent de l'État la wax waxu sax ben ben ben fonctionnaire wala quoi que ce soit agent de l'État la wax boo xamante dafa yëg euh, njuuj jaaj mais kooku bu waxul ñu jaaj bobu bu ko dénoncé wul ëlëk buñ koy top mën nañ ko top walé comme comme complice. lolou def nañ ci code code de transparence la 2014 la yaakaar naa si nañ ko si nañ ko si nañ ko am ici au Sénégal. Mmh. donc pour dire que ni euh, jamono dafa dafa dafa dem ba dafa dépasser ay mbir yo xamante dañ koy nëbb ak ay secret d'État ak yooyu mais euh, man lima lima jaaxal rek moy en fait yeen seen surprise ci Macky Sall ak li muy euh, ba wax lolou Macky Sall moom fàtte na ni jamono jooju euh, Zalé mu nekkoon tribune euh, Abdoulaye Mbow. wala mhm. wala wala ki Félix Zale mais mi ngi won ci kasso bi 2014 nga tëj Zalé ci liggéeyam. nga wër ko 2015 nga ni duma ma tëj ngeen koy déglu. dañu waxante dëgg yow 2014 tëj nga journaliste ngay wëlbatiku 2015 naan duma ma mës a journaliste ngeen koy jox crédit <laughs> dafa am yo xamanteni gis nga Moustapha yéen yéen. est-ce que du ngeen baye Macky Sall tëj na.

éviter l'ol. donc mom mhm. moy tëj mom moy tijji parce que mom mo nek ci ginnaw procureur et surtout euh, li ñuy wax ni ay instructions yooyu procureur la te procureur mi dépend ci ministre de l'intérieur mhm. ministre de la justice ministre de la justice dépend ci président de la République donc mom mooy mom moy mooy en réalité mais euh, man euh, loloy sans problème c'est-à-dire bu ñu nuwee que dañuy étonné wala dañuy jaxlé ci président Macky Sall ak ay pratiques mais du lo xamante lu bees la jël nañ fi ay nit élection wala référendum Walfadjri bi lan la fi wa RTP gon def Abdou Karim Sall directeur mo fi ñëwoon bu ko ñëw di dee dagg signalam mhm. ñii seetaan bërki démb mars ay journalistes def seen liggéey Irak buy tàq di def ay guerre ay bomb di naaw gauche ak droite Walf mën na ko teg waaye ay gaz lacrymogène ñu ko mën a teg ñu dagg signal Walfadjri dagg signal Sen TV. guerre Ukraine Russie bi ku si am image da koy tek tous les jours en toute responsabilité. ñu ne ay gaz lacrymogène wala ay pneus yi tax kenn du ko parce que dafay influencer ay nit dagg signal Walfadjri dagg signal Sen TV léegi koku tay ji bu jappé ben journaliste bo xamné ne dafa am une voix discordante. limi wax arrangé wu leen man je pense que ni dafa nek ci logique bi nga xamante mom la yàgg di nek moy tooxal journaliste yi Moustapha mhm. yow xamna jëmono ji bokko ci reporter yi dem Palais mais bo démé Palais de la République mhm. sa téléphone du

mais nasaraan bi taxawee fële yore T25 la xaw ma. taxaw di def liggéey kenn inquiété wu ko lijjanti wu ñu ko sax nit ñi di ko naan yow xanaa kay gisoo ko wu leen. justement un dernier tour sur ça avant ñuy avancer Ramatoulaye ci yow laa koy commencer euh, Pape Makhtar moo lâché mot bi léegi mooy nasaraan bi souvent les journalistes sénégalais dañ doon oui le président de la République su wax télévision étrangère mais mais moment bi ñuy pas allé et ça me semble important moment bi ñuy jàpp Pape moment bobu l'actualité contrat d'armement 45 milliards lañ euh, ki ko révélé ab journaliste la mi ngi fii ci Ndakaaru mais bokul ci ci ci gan la ci réew mi moom kenn inquiété wu ko mosuma dégg sax ñu né dinañ ko wo pour mu expliquer wu mais pap ala limu wax qui est beaucoup moins grave je crois hein je crois que que que cette histoire d'arme là mom da koy payer par euh, une euh, ñu koy wax un séjour en prison hum. est-ce que ça pose pas problème Bon, par rapport à 45 milliards parce que 45 milliards quoi qu'on puisse dire information pour xamante relayé nañ ko. gis nañu euh, journal du quotidien de Libération mhm. donc TV5 aussi euh, TV5 et puis d'autres médias également. muy ay ndaw révélation parce que y y a une ramification qui a ça révélé nañ ko tout autant ci biir dossier mhm. donc je me dis est-ce que c'est la même chose tamit. Hmm. estampillé secret défense. c'est estampillé secret défense. moi, mooy le contrat d'armement ah, c'est estampillé secret défense. quand le traitement doit être le même. oui jëndum armement Moustapha jëndum armement moom secret défense Oui, moom la wax ma ni traitement bi par rapport ak journaliste bi nga ça doit être le même. Mhm. warul am deux poids deux mesures bu parce que boobu également secret défense parce ñu y parce que armement et on a clairement dit que ni filles c'est pas au ministère de l'environnement pour voir qui ay armes à il revient à l'armée à mais on a vu des je sais pas unité yu bari yo xamanteni jënd nañ ko ci arme ba paré duggal ko ci ministère de l'environnement kon fofu dina am deux poids deux mesures bien sûr parce que vous que les journaliste bi révélé bobu il n'est pas inquiété du tout mais est-ce que est-ce que ces ces révélations là ci affaire arme gënut a graaw fouf affaire Pape parce que ndaw si man euh, def affaire bi ah, muy wax sur TV5 mu arme yu jënd am na ci yo xam fonctionné tul kenn utilisé tout ko euh, pièce de rechange sax amatu ko depuis xawma ban ban année mal les 45 milliards dont on parle demul fay yàgg dafa ba fay c'est autour de 20 milliards mhm. mais loolu est-ce que gënul graaw foofu ab euh, je ne sais pas benn këyit bu def ne Oscar Sierra xawma lan bien sûr bu fekkee euh, ay armement la wax foofu par rapport ak Oscar Sierra comme on dit mhm. c'est pas la même chose du même information bi du information boo xam ne bii moo peser que beneen bi parce que armement déjà euh, ndax ñi ngi wax li nga xamante ni mooy euh, ay euh, comment dirais-je ministère de l'environnement li nga xamante ni génne na ko commandé na ko ñu wax également par rapport ak benn Nigérian si je ne m'abuse boo xamante ni petit xawma petit Boubé xaw petit Boubé nga xamante ni c'est pas quelqu'un de c'est quelqu'un de véreux mhm. bu fekkee état Sénégal lay wax parce que ça engage l'état du Sénégal mhm. bu fekkee moom moo contracté loolu ak un quelqu'un boo xamante ni il est vert loolu déjà mën nañu wax c'est excessivement grave parce que état amul pour di contracter koo il est présenté comme un criminel wala genre boobu ci yooyu lay nekk nga ñëw di contracter lolu comparé à ce que li nga xamanteni Pape Ali wax nako hmm. dem ci benn PV hmm. bu fekkee PV bobu lañu wax mom la génnee te PV bi li ma wax également moy hmm personnalité yi nga xamanteni cité nañ ko cité nako ci on a parlé du euh, procureur sëñ Bassirou ak yépp c'est des accusations yo xamanteni c'est des accusations yo xamanteni Ousmane Sonko dem na bané amna ay photo yo xamanteni jël nako ajouté ko ci biir dossier donc c'est un dossier bo xamanteni aujourd'hui ça interpelle tout le monde tout en tous les Sénégalais et même au niveau international on a besoin d'avoir vraiment xam lan mo nek réellement bu fekkee li ñuy toppee li ñuy wax Ousmane Sonko yooyu yépp ay ay ay du taxawul fenn la kon aujourd'hui ni non seulement ils seront engagés parce que bu que il est avéré que ñom ñoo charge chargé dossier Vous su que c'est avéré laay wax que dossier bobu ñom ñoko ko chargé sciemment. Mhm. kon foofu également la justice doit faire euh, égal jouer son rôle. d'accord très rapidement avant may def Dame bi nga déggee maître non c'est maître Moussa Bokar Thiam hein, le ministre de la communication mu ne les journalistes yi bind ci affaire Armement bobu l'État n'exclut pas de les de les poursuivre est-ce que est-ce que reetaanoo. non man bu ma du bobu dé. bu ministre bu cuune bobu saay di bañ dégg dem TV

te mu yore cadre gouvernement je ne pense pas que loolu nekk nek, nek, nek raison parce que bu demee ba ci plateau télé xam nañ dañ koy la question boobu waroon na préparer réponse surtout que télé boobu bokk na ci. télé merci te da ngay fay pour mën a ci édition yooyu. Hmm. da ngay jàll pour communiquer donc je ne sais pas boobu noonu euh, dafay wane quelque part que li de leen di waxal du ay wax yoo xam dañ koy créer que en fait ñun ñoo yaakaar lu sérieux mooy état. mais ñii waxuma la ay caaxaan ci ay caaxaan yu doy wax lañu ne. alors euh, Dame Mbodj euh, Abdourahmane euh, Abdou Badara Diouf alors Dame moment bii ñuy jàppee Pape Alé Il euh, bari a ay ay ba ah, des rumeurs euh, wala je ne sais pas si c'est de l'information ou pas disant que oui y a une liste de de sénégalais ay journalistes ay activistes je sais pas moi ay chroniqueurs ay hommes politiques yo xamné il faut ñu noppiloo avant 2024 est-ce que da nga japp l'arrestation de Papal Alé dafa un ci un projet global pour noppiloo ay nit wala c'est c'est un fait isolé waaw Moussa rapidement rek bala may wax ci loolu. bëggoon naa wax quand même que ci euh, sénégalais yi ñun mag euh, réew bi fi nekk dañuy des fois dañuy dañuy dañuy divertir parce que dossier bi euh, nga xam ma doon 45 milliards 45 mhm. milliards 300 yi. mais dafa gênant ci nguur gi ba wut nañ pexe bu ne pour pour pour étouffer débat boobu. pour ñu bañ cee wax parce c' est tellement mais comme ni nga ko waxee ñaari dossiers yëpp ñu sax c'est-à-dire bu ñu fi amee dossier secret défense boobu la. ay fusil d'assaut yu yoo xam ni armée moo koy jënd kenn wut te xam marché bi sax dafa war am ñu dem di ko jaarale ci ay ministère de l'environnement yow gis nga gis nga convention bi bi ñu signé ak Petit Boubé gis nga ko mais dañoo bind mel ni ko jënd marché Sandaga di di di di et di jënd ay armes yu garaaw di ko listé ba mu neex leen rek ñu ne milliards 300. comme ça je gisoo rapport bi extraordinaire boo gisee rapport bi nga yéemu sax quoi yow. amul prix amul prix amul dara xoolal daam daam boo jëndee pont. xoolal boo jëndee boo jëndee pont. waaw dañ naan la pont jar. boo jëndee marto ñu def njëkk dinaa jar. après defal total. mais nu muy see tas xibaar bi mu génne. mooy dañoo def kii bi rek

ñu respecté ñun sénégalais yi mais c'est-à-dire mënuñu wax ni ay dossier euh, secret la ñuy topp nit ñi ñu am dossier bu grave noonu ki ko def nekk fii nekk euh, euh, consortium boo xam ne ñu ngi fi nekk fi ñëpp gis leen moom muy joxe sa ay ay ay ay live mm-hmm. gis nga live bi mu def. bien ndaw si. Mm-hmm. mi attaqué leen mi ci xolam kenn ñi mu ko woo complexe gi may wax ci ñoom. dossier boobu gën a garaaw ci dossier yi fi génn gul

oui kon damaa ne ci liste bi su ma sañoon sax du ci wax parce que damaa bëgg ñu ñëw jàpp ñu parce que Macky Sall bu yaakaaree <laughs> jaay doole moom la fiy nekk di jàpp nit ñi benn par benn sa mbokk yi ku ne la woon la noppil waa ji day jàppaate ndaxte léegi sunu réew mi comme lido ku génn ñu jàpp mbóoj noppil dañ lay jàpp tey jii rek dëj bi ma demoon Louga koo waxal mu la mbóoj yaa ngi ci liste bi dañ lay jàppale <laughs> mais xam nga Macky Sall xam nga lu ko bëgg a xamal xam nga ma ne Cheikh Omar Diagne dama wax lu reelu da ne ma bul naa ñu jàpp la Cheikh Omar Diagne ah. ah. ne ma noo Dame Mbodj yow moom bul ñëw mais c'est-à-dire Macky gis nga nekk nii du dëgg du yoon ku yaakaar nag mën nga fee napp nit ñi xoqtal nit ñi jaay leen doole ba duñu wax dangay nax sa bopp ñi mu dugal ci kasa bi da ngeen a fàttaliku Cheikh Omar bi ko génnee ci garde à mu mbële

ñaa yéen a ciy topp dama ne ñim lim ñëpp man dama leen a xam kenn laa lay wax nii. nekku ci liste am na est-ce am na. est-ce que am na xam ah ñoom li ñu xamul mooy ñun ñëpp xam ne ñu ngi ñuy rëbb rëbb bi ñun dañ ko xam parce que nag ñun mu mun ñu jëwante hmm. xam nga ñu xamuñu dossier yi Pape Alé Niang fu mu koy jëlee mais ak ñun ñëpp dañuy am ay information au très parce wax na ko ne dinañ ma jàpp dem na seeti maître ah loolu il ma laa confirme maître Moussa Sarr Pape Alé Niang dem na seeti ko avant ni koy japp ne ko dañ may japp waxtana mom ci nim koy taxawoo Pape alagnan jour bi ko jappé téléphone dafa actif pendant toute la nuit ils ont essayé d'entrer dans le téléphone effectivement parce que mon téléphone daf ko sécuriser ñi may seetaan te xam téléphone sécurisé gis nga lolu ubbi da koy effacer kooku du ay caaxaan la haute technologie actuellement ñom c'est-à-dire xam sang yaay wax né dañ leena dépasser mais fépp lañ leen dépasser c'est-à-dire légui boy boo sa téléphone mais boo yoree téléphone mën nga ko sécuriser no xam ci kenn mënu ko ubbi. Mhm. té sax nga def ci code teg jox len ko ñu ubbi ko mais du lu ñu ubbi du dem. dañ leen di dañ leen filmer sax kiko ko ubbi. actuellement amna système yo xam même kiko ko ubbi dañ la koy filmer won euh, envoyer ko fi nga xam mom moo yore. d'accord accord donc Alioune Badara Diouf mhm. euh que euh, euh, gis nga mhm. Moustapha. ñun ñëpp nous sommes au courant depuis très longtemps parce que Macky Sall dafa ragal. képp koo xam ni. li ngay wax mën naa yàq lu tarf toll ne tarfatay ay ni wala mu leeralal sénégalais yi parce que leeralal boobu ñuy def sénégalais yi. loolu moo ko tiital comme xam na ne li mu bëgg a def pour mu mën ko def il faut mu mu endoctriner sénégalais yi. gëmloo leen loo xam ne sénégalais dañuy gëm ni mom mu nekkat fi jëm deux mille vingt trente gën ci ñom ñi léral ni nguuram gi c'est un régime dangereux ñoñu pour mom da leen a war a faagaagal benn par benn bu ko defee mën a jaay doole sénégalais. d'accord Alioune Badara est-ce que est-ce que seen camp dafa am une volonté euh, noppiloo ñenn ñi bala deux mille loolu lañ bëgg daam boo joxe na benn liste léegi bu ma ko déggee muy wax quand même euh, damay damay am lu ma naqari quoi. loolu moo am parce que il faut qu'on soit sérieux. ah mais on est très sérieux. quand on débatte euh, des problèmes yo, xamante ne des problèmes sérieux qui parlent de l'état ak yooyu xam nga. vraiment mu nekk fi duñu divertir rek ay am na liste boo xamante ne mais am euh, des gens ciblés ba yo, yow si nga bokk keneen si la bokk ak yooyu. alors que man à ma connaissance. Mm-hmm. et doo gis benn.

c'est-à-dire que vraiment bah, vraiment ah, eh, mais non non dans les plus grandes instances de l'État et du parti de notre parti de notre coalition amul liste ça nous intéresse même pas ce que vous faites là ay leral askan wi non non non da ngeen di lëndëmal au contraire. Ah bon ya ngi doon ah ko nek fi ko nekk fi. Omar Fay nekk fi. leral askan wi parle pas de Omar Faye en tant que tel non non damay wax ne rek liñuy wax ne dañuy. leeral kon mën nañu continuer di wax sans problème. non mais évidemment mais yow tam xam nga ne la liberté d'expression existe bel et bien au Sénégal yow gis nga ki day xey ba ngoon jot di wax lu ko neex. ah bon Matar day xey bu ngoon jog di ko wax lu ko neex. keneen ak keneen day xey bu ngoon jog di wax lu ko neex est-ce que mos nañ ci inquiéter kat est-ce que mos nañ ci jàpp kat <laughs> mais soyons sérieux kat moo leen mos a inquiéter non amul y en a pas. parce que nag bu ñuy wax liberté d'expression quand même am na fii ci Sénégal da ngay gis réseaux sociaux yi lañ cay wax. président Macky Sall wax na ba sonn kilifa diine yi wax nañ ba sonn. menacé na ba sonn am na ñoo xamante ne yow mii. di hmm. di nga fay gis loo xamante ne neexu la. bis bu nekk man man laa même chose keneen ak keneen. donc loolu ñun ñëpp la engagé ñun ñëpp ñoo si war a wax les fake news la. ak wax wax yu bëri yoo xamante ne. ay layu kese kese kese. mais mais mais il faut qu'on arrête s'il vous plaît daal président de recevoir Alioune Badara Diouf. Euh, ah, Alioune Badara Diouf est-ce que est-ce que recevoir saagakat yi loo ci wax ko. le président n'a pas reçu ça. ah bon ah. Ah, saaga kat mooy la ah. ah bon kan la recevoir ndaw si leen ra ndaw si leen ndaw si leen remplacé assemblée saaga moom ci boppam sax recevoir na ko ba oh, pare ah, saaga kat mooy la yow sa xalaat bu sénégalais ñuy seetaan bu dee yow gis nga ni eh, xolal nit saaga na ko tifaar na koy saaga ba doy mu ñëw defal ko interview président Macky Sall tifaar tifaar na koy saaga président Macky Sall dafa njaboote Sénégal yëpp du dëgg sénégalais bu jóg am occasion mën koo gis war na laa mën a recevoir. mais loolu c'est des contre-valeurs nag loolu moom quand ah, même. mais mais tey tey jii Pape Makhtar mii bu bëggoon mu recevoir loolu du ko am. Euh, ba pare muy recevoir non c'est c'est pas l'objet de débat. non non mais mais Pape Makhtar s'il avait l'occasion. peut-être mën na fekk président ci situation boo xamante ne da koy recevoir dañuy am entretien ñoom ñoom. alors euh, Alioune est-ce que est-ce que loolu lépp li li daam di wax wax nga ne amul y a y a pas de liste mais l'arrestation deux journalistes ak yeneen yu yu demee noonu yi Makhtar est-ce que yëpp jëmul rek ci ci le fameux débat sur le troisième euh, la troisième candidature bi bari wax ne moom la Macky Sall bëgg APR ñu bari ñoo wax ne ko def ba pare bañ ku ko parce que nga wax ñu li wax ko wax ñu ku wax la ñu tifaare la saaga. non moom tifaare bi wax lay wax ma répété ko rek. ku ne dama ne man ku ne Macky Sall amul amul droit def un troisième mandat. Ah, man fi ma ko waxee du contexte saaga c'est argument sur argument. donc ñun loolu lañu ñu nekkee. c'est-à-dire que ñun boo gisee. Mhm. ñenn ñi di di dem ci plateau yi. Mhm. di wax ak sénégalais yi. mais c'est pour argumenter que le président de la république Macky Sall a droit à un troisième mandat. comme Nico Keren président Macky Sall le droit à un troisième mandat on l'accepte mais nous, nous nous, nous, nous, argumenter nous, droit n'est-ce pas teg ko ci constitution bi. Hein? teg ko aussi suñu bëgg-bëgg. ñun wa APR. suñu bëgg-bëgg. moy que président Macky Sall soit notre candidat. légui cadeau cadeau mom nu ngeen koy def. non dama la ne cadeau président Macky Sall féetewul kaw constitution te cadre président Macky Sall. je le dis haut et fort je le dis haut et fort. Euh, yalla rek moy wax lo xamante day am je te donne un exemple. lu lu lu dul je te donne un exemple euh, en 2000 euh, président Macky Sall bi mu bëggee wàññi bi mu bëggee de 7 à 5 ans. bi fallo 2012. waaw bi mu bëggee wàññi de 7 à 5 ans. Mhm. mais qu'est-ce qui s'est passé.

leader Dambo. Non, quand même, eh, non, il faut être sérieux. Ousmane ah, Sonko. Vraiment. Quand même, il faut être sérieux, non, s'il vous plaît. Euh, non, d'accord, d'accord. Il retire ce qu'il a dit. Non, mais lui, il n'a qu'à retirer ça. Non, non, sérieux. Ah mais quand même, mais Ousmane Sonko. Ah oui. Ousmane Sonko, votre tête de liste. Ouais, mais ouais, ouais, Sonko, D'accord. Alors, Ben Mokhtar, est-ce que. Euh, Aux élections législatives passées, il l'a dit. te defe naa ne ñun ñëpp une naa am nañu vidéo fu muy waxee effectivement le président Macky Sall. su su sous gañee élection yi nii a le droit euh, briguer en 2024 euh, la présidentielle. D'accord, ko wax mu leer nañ ko euh, Barthélemy Diaz wax na ko mu leer nañ waaw ñooñu ay saint nañu wala ñu am évangélique. ah waaw. yaa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 yéex iya, naa ñëw mbokk yaa ngi sa kër yor sa ordinateur baa nga nekk sa biir oto sab rajo di sus te bugo ben information ci adina bi ba joge ci radio sénégalais yi nekk ci WPT 9am rawla. Kay mo ma wax la demal ci seneinfo ci sa computer ba sa smartphone japp sa lees xibaar di ñew noko ko en live ba bu la nexé ëlëk nga mën ko am en postcard seneinfo point net yemul un ak ndax képp ku am ce produit ba ce événement bo bëgg siwol siiwal ak ñoom ci 77 253 87 98 ci Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee sene info point gis ab publicité just cliquer ci pub ba soko defé defee ma def ko keneen def ko buñu ñu dellusee daañu gis amélioration amna ci xarit programme muy bu radio wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci seneinfo point demal ci seneinfo rec at gmail.com info rec at gmail.com nga ci 77 253 87 98 c'est Sénégal wala 347 596 20 36 347-596-2036 USA la mbokk yi sene info point net seen sutu bopp la kenn ku ne mën na cee jàpp cliqueel ci publicité ba nga ca gis rek aaju yépp ay daal di faju Allah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 institut ICFA da koy jagleel askan li ma ci gëna neex na moy fepp fo dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yoyu les cours lay dal amatul ci mag ak ci ndaw dem le légui inscrire ci icfaonline.com wala so soxlawé ay information yu gëna a yaatu mën ngeen len jot ci 240 688 2505 05 wala ci 347 596 2036 wala nga envoyé email jot réponse Votre réponse te woo si ikfa online abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su mbokk yaa ngi sa kër yor sa ordinateur ba nga nekk sa biir oto sab rajo di suus te bëggoo benn information ci àddina bi bay yiy jógee ci rajo sénégalais yi nekk ci WPT 9h30am raw la kay ma wax la demal ci sene seneinfo.net ci sa computer ba sa smartphone jàpp sa lees xibaar yi di ñëw noo ko bëggee en live ba bu la neexee ëllëg nga mën koo am en postcard. Seneinfo.net point net ak yéen ndax am sa produit ba sa événement boo bëgg a siiwal jokkool ak ñoom ci 77 253 87 98 ci Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee sene info.net, à daa gis ab publicité just cliqueel ca pub ba soo ko defee ma def ko keneen def ko bu ñu dellusee daañu gis ne amélioration am na ci xarit soo amee sa programme muy bu rajo wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci seneinfo point net demal ci seneinfo rec at gmail dot com at gmail dot com nga woote ci 77 253 87 98 c'est Sénégal wala 347 596 20 36 347-596-2036 USA la mbokk yi seneinfo point net seen sutu bopp la kenn ku ne mën na cee jàpp cliquer ci publicité ba nga ca gis rek aaju yëpp koy daal di faju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 institut ICFA da koy jagleel askan li ma ci gëna neex na moy fépp fo dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yoyu les cours lay dal amatul ci mag ak ci ndaw dem le légui inscrire ci icfaonline.com wala so soxlawé ay information yu gëna a yaatu mën ngeen len jot ci 240 688 2505 wala ci 347 596 2036 wala nga envoie email jot réponse bu gaaw te woo si icfaonline@gmail.com ICFA daal naa ñëw.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

institut ICFA da koy jagleel askan bi li ma ci gëna neex na moy fepp fo dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yooyu les cours lay dal amatul ci mag ak ci ndaw dem le légui inscrire ci icfaonline.com wala so soxlawé ay information yu gëna a yaatu mën ngeen leen jot ci 240 688 2505 05 wala ci 347 596 2036

ci ce computer ba sa smartphone jàpp sa lees xibaar yi di ñëw noo en live ba bu la neexee ëllëg nga mën en postcard seneinfo.net point net yemul foofu ak yéen ndax képp ku am sa produit ba sa événement boo bëgg a siiwal jokkool ak ñoom 77 253 87 98 et Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee sene info point net daa gis ab publicité jës cliqueel ca pub ba soo ko defee ma def ko keneen def ko bu ñu dellusee daañu gis ne amélioration am na ci xarit soo amee sa programme muy bu rajo wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci sene info point net demal ci sene info rec at gmail dot com sene info rec

rahmatullah barakatuhu mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen institut international ICFA professeur Mohamed Saho, ak équipe bu xarañ bi mu àndal leen dong moo leen tax a jot fexe ba noo leen di jote ci njàngilay alquran alkarim karim njàngilay bi sallallahu alayhi wa ci anam bu leer bu wóor bu sell bu mucc ay teg ci képp bëgg jàng lecture arabe wala sax ni ñiy làkke kàllaamay arabe institut ICFA da koy jagleel askan bi li ma ci gëna neex na moy fepp fo dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yoyu les cours lay daal amatul ci mag ak ci ndaw dem le légui inscrire ci icfaonline.com wala so soxlawé ay information yu gëna a yaatu mën ngeen leen jot ci 240 688 2505 05 wala ci 347 596 2036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

ak fépp ci aduna bi sen groupe d'information une info international dimbalu askan wi moko ko Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakaatuhu Bokki dalen ak institut international ICFA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 yéex iya, naa ñëw mbokk yaa ngi sa kër yor sa ordinateur baa nga nekk sa biir oto sab rajo di suus te bëggoo benn information ci àddina bi ba yi jógee ci rajo sénégalais yi nekk ci WPT 9h raw la kaay ma wax la demal ci seneinfo ci sa computer ba sa smartphone jàpp sa lees xibaar yi di ñëw noo ko en live ba bu la neexee ëllëg nga mën ko am en postcard seneinfo.net point fofu ak yéen ndax képp ku am sa produit ba sa événement boo bëgg a siiwal jokkool ak ñoom ci 77 253 87 98 ci Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee seneinfo point net daa gis ab publicité just cliquer ci pub ba soo ko defee ma def ko keneen def ko bu ñu dellusee daañu gis amélioration am na ci xarit soo amee programme muy bu rajo wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci seneinfo point net demal ci info rec at gmail dot com info rec at gmail dot com nga 77 253 87 98 c'est Sénégal le 347 596 20 36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

yéex naa ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen institut international ICFA professeur Mohamed Sakho ak équipe bu xarañ bi mu àndal leen dong moo leen tax a jóg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

yéex naa ñëw. mbokk yaa ngi sa kër yor sa ordinateur baa nga nekk sa biir oto sab rajo di suus te bëggoo benn information ci àddina bi ba yiy jógee ci rajo sénégalais yi nekk ci WPT 9am raw la kay ma wax la demal ci seneinfo point net ci sa computer baa sa smartphone jàpp sa lees xibaar yi di ñëw noo ko bëggee en live ba bu la neexee ëllëg nga mën ko am en postcard seneinfo point net yemul foofu ak yéen ndax kep ko am ce produit ba ce événement bo beug siwol siiwal ak ñom ci 77 253 87 98 au Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo bobu mën continuer di dab seen bànneex japp ci lu yomb lool la yo ubé gis publicité just cliquer ci pub ba soko defé ma def ko keneen def ko buñu ñu amélioration amna ci xarit so amé ce programme muy bu radio wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci seneinfo point demal ci seneinfo rec at gmail.com seneinfo rec at gmail.com nga ci 77 253 87 98 c'est Sénégal wala 347 596 20 36

rahmatullah d'Alen barakatuhu mbokk yi ak jàmm ci seen institut international Iqfa. professeur Mohamed Saho ak équipe bu xarañ bi mu àndal leen dong moo leen tax a jóg fexe ba noo leen di jote ci alquran al karim njàngilay bi sallallahu alayhi wa sallam ci anam bu leer bu bu sell bu mucc ay teg ci képp ku bëgg jàng lecture arabe wala sax ni ñiy làkke kàllaamay arabe institut ICFA da koy jagleel askan li ma ci gëna a neex na mooy fépp dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yoyu les cours lay daal amatul ci mag ak ci ndaw dem le légui inscrire ci icfaonline.com wala so soxlawee ay information yu gëna a yaatu mën ngeen leen jot ci 240 688 2505 wala ci 347 596 2036 voilà, vous envoyez une e-mail, votre réponse vous gardez-vous, c'est icfaonline.com. icfa dalle, hier n'a nié. C'est le niveau international. C'est le niveau international.

seneinfo.net yemul fofu ak yéen ndax képp ku am sa produit ba sa événement boo bëgg a siiwal jokkool ak ñoom ci 77 253 87 98 au Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa publicité just cliquer ci pub ba soo ko defee ma def ko keneen def ko bu ñu dellusee daañu gis ne amélioration am ci xarit soo amee sa programme muy bu rajo wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci seneinfo point net demal ci rec at gmail dot com seneinfo rec at gmail dot com nga woote ci 77 253 87 98 c'est Sénégal wala 347 596 20 36 347 USA la mbokk yi seneinfo point net seen sutu bopp la kenn ku ne mën na cee jàpp ci publicité ba nga ca gis rek aaju yépp daal di faju Allah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 institut ICFA da koy jagleel askan li ma ci gëna neex na moy fepp fo dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yoyu les cours lay dal amatul ci mag ak ci ndaw dem leen légui inscrire ci icfaonline.com wala soo soxlawee ay information yu gëna a yaatu mën ngeen len jot ci 240 688 2505 05 wala 347 596 2036 voilà, envoyez un e-mail de votre réponse vous c'est Iqfa Online, arroba gmail.com. Iqfa Dal, Yer na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 abonnez International. C'est international. sur chaîne YouTube ngir vous saa vous YouTube,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 institut ICFA da koy jagleel askan bi li ma ci gëna neex na moy fepp fo dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yoyu les cours lay dal amatul ci mag ak ci ndaw dem le légui inscrire ci icfaonline.com wala soo soxlawee ay information yu gëna a yaatu mën ngeen leen jot ci 240 688 2505 05 wala ci 347 596 2036 wala nga envoyé email jot réponse bu gaaw te woo si icfaonline arroba gmail point yéex naa ñëw. mbokk yaa ngi sa kër yor sa ordinateur ba nga nekk sa biir oto sab rajo di suus te bëggoo benn information ci àddina bi ba yi jógee ci rajo sénégalais yi nekk ci WPT 9 AM raw la kay ma wax la demal ci seneinfo point net ci sa computer ba sa smartphone jàpp sa lees xibaar yi di ñëw noo ko bëggee en live ba bu la neexee ëllëg nga mën ko am en postcard seneinfo point net yemul foofu ak yéen ndax képp ku am sa produit ba sa événement boo bëgg a siiwal jokkool ak ñoom ci 77 253 87 98 ci Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi.

Bango 77 253 87 98 c'est Sénégal wala 347 596 20 36 347 596 20 36 USA la Seneinfo.net yi seneinfo point net sutu la na publicité ba nga ca gis rek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 institut ICFA da koy jagleel askan bi li ma ci gëna neex na moy fépp fo dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yoyu les cours lay dal amatul ci mag ak ci ndaw dem le légui inscrire ci icfaonline.com wala so soxlawé ay information yu gëna a yaatu mën ngeen leen jot ci 240 688 2505 05 wala ci 347 596 2036 voilà, envoyez une e-mail, votre réponse vous gardez-vous, c'est icfa online.com. icfa C'est le niveau international. C'est le niveau international.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

688 2505 voilà c'est 347 596 2036 voilà on email votre réponse bu c'est si ikfa online arobas gmail point com Mok ordinateur ba nek ci sa biir oto sab rajo di souste bugo ben information ci adina bi ba yiy ci radio sénégalais yi nek ci WPT 9h raw la kay mo wax la demal ci seneinfo.net ci ce computer ba ce smartphone jàpp sa lees xibaar yi di ñëw noko ko en live ba bu la nexé ëllëg nga mën ko am en postcard seneinfo point net yemul ak yeen ndax képp ku am ce produit ba ce événement bo bëgg a siiwal jokkool ak ñoom ci 77 253 87 98 au Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee sene info point net daa gis ab publicité just cliquer ci pub ba soo ko defee ma def ko keneen def ko buñu ñu dañu dans gis ne amélioration am na ci xarit soo amee sa programme muy bu rajo wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci seneinfo point demal ci info rec at at nga woote ci 77 253 87 98 c'est Sénégal wala 347 596 20 36 347 596 20 36 USA la mbokk yi seneinfo point net seen sutu bopp la kenn ku ne mën na cee jàpp cliquer ci publicité ba nga ca gis rek aaju yëpp yi daal di faju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 Yeah.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 yéex naa ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen institut international ICFA professeur Mohamed Sakho ak équipe bu xarañ bi mu àndal leen dong moo leen tax a jóg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 mën nga bokk ci yooyu les cours lay daal amatul ci mag inscrire ci icfaonline.com voilà soo soxlawee ay information yu gën a mën ngeen 240 688 2505 05 wala 347 596 2036 Voilà wala nga email jot réponse bu gaaw te woo si icfaonline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

institut ICFA da koy jagleel askan li ma ci gëna neex na moy fepp fo dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yoyu les cours lay dal amatul ci mag ak ci ndaw dem leen légui inscrire ci icfaonline.com wala so soxlawé ay information yu gëna yaatu mën ngeen leen jot ci 240 688 2505 05 wala si 347 596 2036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

Feputi ci aduna bi sen groupe d'information sen info international ndimbalu askan wi moko ko Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakaatuhu Bokki dalen ak ci sen institut international IKFA.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 mën nga bokk ci les cours lay daal amatul ci mag ak ci ndaw dem inscrire ci igfaonline.com wala soo soxlawee ay information yu gën a mën ngeen leen 240 688 2505 Ou wala si 347 596 2036 36 wala nga email jot réponse bu gaaw woo si Yeh iya, naa ya Mok, yangi yaa ngi kër yor sa ordinateur baa nek nekk sa radio di suus te bëggoo benn information ci adina bi ba yiy ci radio sénégalais nek ci WPT 9am rawla. Kay kaay ma wax la demal ci point ci sa computer ba sa smartphone Japu sa khibari xibaar noko di ñëw babulan ko en live ba bu la am en postcard seneinfo.net yemul foofu ak yéen ndax képp ku am sa produit ba sa événement boo bëgg a siiwal jokkool ak ñoom ci 77 253 87 98 au Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee gis publicité just cliquer ca pub ba soko ko defee ma def ko keneen def ko bu ñu dellusee daañu gis ne amélioration am na ci xarit soo amee sa programme muy bu rajo wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci seneinfo point net demal ci seneinfo rec at gmail dot com seneinfo rec at gmail dot com maa nga woote ci 77 253 87 98 c'est Sénégal wala 347 596 20 36 347-596-2036 USA la mbokk yi sene info point net seen sutu bopp la kenn ku ne mën na cee jàpp cliqueel ci publicité ba nga ca gis rek aaju yépp ay daal faju Allah rahmatullah barakatuhu mbokk yi dal ak ci sen institut international ICFA professeur Mohamed Saho ak équipe bu xarañ bi mu andal len dom mo len tax Fexé ba no len di jote ci njangalé alcorane al karim njàngale bi sallallahu alayhi wa sallam ci anam bu leer bu bu sel, bu mucc ay teg ci képp ku bëgg jàng lecture arabe wala sax ni ñiy làkke kàllaamay arabe institut ICFA da koy jagleel askan bi li ma ci gëna a neex na moy fepp fo dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yoyu les cours lay dal amatul ci mag ak ci ndaw dem leen légui inscrire ci icfaonline.com wala soo soxlawee ay information yu gëna a yaatu mën ngeen leen jot ci 240 688 2505 ou wala 347 596 2036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

seneinfo.net yemul foofu ak yéen ndax képp ku am sa produit ba sa événement boo bëgg a siiwal jokkool ak ñoom ci 77 253 87 98 ca Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee seneinfo.net daa gis ab publicité just cliqueel ca pub ba soko ko ma def ko keneen def ko buñu gis amélioration amna ci xarit so amé sa programme muy bu radio wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci seneinfo demal ci seneinfo rec at gmail.com seneinfo rec at gmail.com dot nga woote ci 77 253 87 98 c'est Sénégal wala 347 596 20 36 347 USA la mbokk yi sene info point net seen sutu bopp la kenn ku ne mën na cee jàpp cliquer ci publicité ba nga ca gis rek aaju yëpp yi daal di faju Allah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 institut ICFA da koy jagleel askan bi li ma ci gëna neex na moy fepp fo dem ci États-Unis ak ci àdduna bi mën nga bok ci yoyu les cours lay dal amatul ci mag ak ci ndaw dem leen légui inscrire ci icfaonline.com wala so soxlawee ay information yu gëna a yaatu mën ngeen len jot ci 240 688 2505 05 wala 347 596 2036 wala nga envoyer email jot réponse bu gaaw te woo si Dal, icfa dal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

rahmatullah barakaatuhu mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen institut international ICFA professeur Mouhamed Sakho ak équipe bu xarañ bi mu àndal leen dong moo leen tax a jóg fexe ba noo leen di jote ci njàngale alquran al karim njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci anam bu leer bu wóor bu sell bu mucc ay ci képp ku bëgg jàng lecture arabe wala sax ni ñiy làkke kàllaamay arabe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

ci sa computer ba sa smartphone jàpp sa lees xibaar yi di ñëw noo ko bëggee en live ba bu la neexee ëllëg nga mën ko am en postcard seneinfo point net yemul foofu ak yéen ndax képp ku am sa produit ba sa événement boo bëgg a siiwal jokkool ak ñoom ci 77 253 87 98 ci Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee seneinfo point net daa gis ab publicité jës cliqueel ci pub ba soo ko defee ma def ko keneen def ko bu ñu dellusee daañu gis ne amélioration am na ci xarit soo amee sa programme muy bu rajo wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci seneinfo point net demal ci info rec at gmail dot com info rec at gmail dot com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

abonné leen si suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu yëpp aju ci réew mi ak ci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 yéex naa ñëw mbokk yaa ngi sa kër yor sa ordinateur baa nga nekk sa biir oto sab rajo di suus te bëggoo benn information ci àddina bi ba yiy jógee ci rajo sénégalais yi nekk ci WPT 9h raw la kay ma wax la demal ci seneinfo point net ci sa computer ba sa smartphone jàpp sa lees xibaar yi di ñëw noo ko bëggee en live ba bu la neexee ëllëg nga mën ko am en postcard seneinfo.net yemul foofu ak yéen ndax képp ku am sa produit ba sa événement boo bëgg a siiwal jokkool ak ñoom ci 77 253 87 98 ca Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee seneinfo.net daa gis ab publicité just cliqueel ca pic ba soo ko defee ma def ko keneen def ko bu ñu dellusee daañu gis ne amélioration am na ci xarit soo amee sa programme muy bu rajo wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci seneinfo point net demal ci seneinfo rec at gmail dot com seneinfo rec at gmail dot com nga woote ci 77 253 87 98 c'est Sénégal wala 347 596 20 36 347 USA la mbokk yi seneinfo point net seen sutu bopp la kenn ku ne mën na cee jàpp cliquer ci publicité ba nga ca gis rek aaju yëpp rek daal di faju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 ak Feputi ci aduna bi sen groupe d'information sen info international ndimbalu askan wi moko ko Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu Bokki dalen ak institut international ICFA professeur Mouhamed Sakho ak équipe bu xarañ bi mu àndal lenn dong moo leen tax a jot fexe ba noo leen di jote ci njàngale alquran al karim njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci anam bu leer bu wóor bu sel bu mucc ay teg ci képp ku bëgg a jàng lecture arabe wala sax ni ñiy làkke kàllaamay arabe institut ICFA da koy jagleel askan li ma ci gën a neex na mooy fépp foo dem ci états ak ci àdduna bi mën nga bokk ci les cours lay daal amatul ci mag ak ci ndaw inscrire ci icfaonline.com wala soo soxlawee ay information yu gën yaatu mën ngeen leen 240 688 2505 ou wala 347 596 2036 36 wala nga envoyé email jot réponse bu gaaw te yéex naa ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen institut international ICFA professeur Mohamed Sakho ak équipe bu xarañ bi mu àndal leen dong moo leen tax a jóg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 de leen inscrire ci icfaonline.com Voilà, sur soxlawee ay information yu gën a yaatu mën ngeen leen jot 240 688 2505 05 wala 347 596 2036 voilà wala nga email jot réponse bu gaaw te woo si icfaonline arobas gmail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 ak fep ci aduna bi sen groupe d'information sen info international dimbalu askan wi moko ko Assalamu a wa rahmatullah wa barakatuhu mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen institut international ICFA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

institut ICFA da koy jagleel askan li ma ci gëna neex na moy fepp fo dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yooyu les cours lay daal amatul ci mag ak ci ndaw dem le légui inscrire ci icfaonline.com wala soo soxlawee ay information yu gëna a yaatu mën ngeen leen jot ci 240 688 2505 05 wala ci 347 596 2036 voilà, nous envoyé email jot réponse pour gaaw c'est woo si icfaonline@gmail.com icfa daal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 ak fep ci aduna bi sen groupe d'information sen info international ndimbalu askan wi moko taxajo tax a wa rahmatullah wa barakatuhu Bokki dalen adjam ak ci sen institut international ICFA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

yéex iya, naa ñëw mbokk yaa ngi sa kër yor sa ordinateur baa nga nekk sa biir radio di suus te bëggoo benn information ci àddina bi ba yi jógee ci rajo sénégalais yi nekk ci WPT 9 am raw la kaay wax la demal ci point ci sa computer ba smartphone jàpp sa lees xibaar yi di ñëw noo ko en live ba bu la neexee nga mën ko am en postcard seneinfo point net yemul foofu ak yéen ndax képp ku am sa produit ba sa événement bobo bëgg siwol siiwal ak ñoom ci 77 253 87 98 et Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee seneinfo point net daa gis ab publicité just cliqueel ci pub ba soo ko defee ma def ko keneen def ko bu ñu dellusee daañu gis ne amélioration am na ci xarit soo amee sa programme muy bu rajo wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci seneinfo point net demal ci seneinfo rec at gmail dot com at gmail dot com nga woote ci 77 253 87 98 c'est Sénégal wala 347 596 20 36 347-596-2036 USA la mbokk yi seneinfo point net seen sutu bopp la kenn ku ne mën na cee jàpp cliquer ci publicité ba nga ca gis rek aaju yépp daal di faju rahmatullah barakatuhu Bokki yi un ak jam ci sen institut international Iqfa. professeur Mohamed Saho ak équipe bu xarañ bi mu andal len dom mo len tax Fexé ba no len di joté ci njàngale alcorane al karim njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci anam bu leer bu wóor bu sell bu ay teg ci ku bëgg lecture arabe wala sax ni la làkke kàllaamay arabe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

seneinfo.net point net yemul un ak yéen ndax kep ko am ce produit ba ce événement bo beug siwol siiwal ak ñom ci 77 253 87 98 ci Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee sene info point net daa gis ab publicité

347-596-2036 USA la mbokk yi sene sutu bopp la kenn ku ne mën na cee jàpp cliqueel ci publicité ba nga ca gis rek aaju yépp ay daal faju Allah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 institut ICFA da koy jagleel askan li ma ci gëna a neex na mooy fépp foo dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yoyu les cours lay dal amatul ci mag ak ci ndaw dem le légui inscrire ci icfaonline.com wala so soxlawé ay information yu gëna a yaatu mën ngeen leen jot ci 240 688 2505 ou wala ci 347 596 2036 voilà, envoyez un e-mail, votre réponse vous gardez-vous, c'est ikfaonline.com. Ikfaal, yerna askanu Sénégal ak bitim Rew, sen groupe d'information bi di Sen info international ubbil na len ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xétu xibaar ci ba mu ci ay anam yu woor moo xam xibaaru politique la ci walu culture bi Josan ak Ada. xibaaru tagat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci aduna bi mën ngeen na abonné wu ci YouTube bu Sen info international ngir xam li xew ci sen réew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

rahmatullah barakatuhu mbokk yi ak jam ci sen institut international ICFA professeur Mohamed Saho ak équipe bu xarañ bi mu molen len dong mo len tax Fexé ba no len di joté ci njangalé alcorane al Njangalé njàngilay bi sallallahu alayhi wa sallam ci anam bu leer bu wóor bu sell bu ay ci ku bëgg lecture arabe wala sax ni ñiy làkke arabe

wala nga un email jot réponse pour gaaw te woo si ikfa online arobas gmail point com ikfa yor sa ordinateur baa nga nekk sa biir oto sab rajo di suus te information ci àddina bi ba yi jógee ci radio sénégalais yi nekk ci WPT 9 am raw la kaay wax la demal ci seneinfo.net,

ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee sene info point net daa gis ab publicité jës cliqueel ca pub ba soo ko defee ma def ko keneen def ko bu ñu dellusee daañu gis ne amélioration am na ci xarit soo amee sa programme muy bu rajo wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci sene info point net demal ci sene info rec at gmail dot com sene info rec at gmail dot com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

institut ICFA da koy jagleel askan wi li ma ci gëna neex na moy fepp fo dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yoyu les cours lay dal amatul ci mag ak ci ndaw dem le légui inscrire ci icfaonline.com wala so soxlawee ay information yu gëna yatou yaatu mën ngeen leen jot ci 240 688 2505 ou wala si 347 596 2036 wala nga envoyé email votre réponse bu gaaw te International.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 yéex iya, naa Mok, mbokk yaa kër yor sa ordinateur baa nga nekk sa biir di sus te bugo ben information ci adina bi ba yi ci radio sénégalais nek ci WPT 9.3M rawla. kay mo wax la demal ci seneinfo point ci sa computer ba sa smartphone jàpp sa khibari xibaar di ñëw noko ko en live ba bu la neexee ko am en postcard

just cliqueel ca pub ba que ko defee ma def ko keneen def ko buñu ñu dellusee daañu gis ne amélioration amna ci xarit so amé sa programme muy bu radio wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci seneinfo point demal ci seneinfo rec at gmail.com seneinfo rec at gmail.com dot nga woote ci 77 253 87 98 c'est Sénégal wala 347 596 20 36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 askanu Sénégal ak bitim réew sen groupe d'information bi di sen info international ou na len ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xétu xibaar ca ba mu ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci walu culture bi josan ak Ada, xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen na abonné wu ci YouTube bu sen info international ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci aduna bi sen groupe d'information sen info international ndimbalu askan wi moko ko tax a jóg wa rahmatullah wa barakatuhu Bokki dalen ak ci sen institut international ICFA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

de me les inscrire sur ikfaonline.com Voilà, si vous ay information yu gën a ngeen 240 688 2505 05 347 596 2036 Voilà, wala email jot réponse bu si icfaonline arobas gmail yer askanu Sénégal ak bitim rew un groupe d'information bi di sen info international ubbil na len ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xétu xibaar ci ba mu ci ay anam yu woor moo xam xibaaru politique la ci walu culture bi cosaan ak ada xibaaru tagat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci aduna bi mën ngeen abonné wu ci YouTube bu sen info international ngir xam li xew ci ak fépp ci aduna bi sen groupe d'information sen info international dimbalu askan wi moko ko Assalamu a wa rahmatullah wa barakatuhu Bokki dalen ak ci sen institut international ICFA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 mën nga bokk ci les cours lay daal amatul ci mag ak ci ndaw dem inscrire ci igfaonline.com voilà soo soxlawee ay information yu gën a yaatu mën ngeen leen jot 240 688 2505 ou wala 347 596 2036 voilà wala nga envoyé email jot réponse bu gaaw woo si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

institut ICFA da koy jagleel askan li ma ci gëna a neex na moy fepp fo dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yoyu les cours lay dal amatul ci mag ak ci ndaw dem le légui inscrire ci icfaonline.com wala so soxlawé ay information yu gëna yaatu mën ngeen leen jot ci 240 688 2505 ou wala ci 347 596 2036 voilà nga envoyé email jot réponse bu gaaw c'est woo si icfaonline@gmail.com icfa daal askanu Sénégal ak bitim rew sen groupe d'information bi di sen info international ubbil na len ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di meun di am bépp xétu xibaar ci ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci walu culture bi cosaan ak ada xibaaru tagat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci aduna bi meun ngeen na abonné wu ci YouTube bu sen info international ngir xam li xew ci sen rew ak fep ci C'est bi sen groupe d'information sen info international dimbalu askan wi moko ko tax a wa rahmatullah wa barakaatuhu Bokki dalen ak jàmm ci sen institut international ICFA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

mën nga bokk ci les cours lay daal amatul ci mag ak ci ndaw dem leen léegi inscrire ci igfaonline.com wala soo soxlawee ay information yu gën yaatu mën ngeen jot ci 240 688 2505 05 wala si 347 596 2036 36 wala nga envoyé email jot réponse bu gaaw te woo si icfaonline arobas yéex iya, yang ñëw mbokk yaa ngi sa kër yor sa ordinateur baa nga nekk sa biir di suus te bëggoo benn information ci àddina bi ba yi jógee ci rajo sénégalais yi ci WPT 9am raw la kaay ma wax la demal ci seneinfo point net ci sa computer ba sa smartphone jàpp sa lees xibaar yi di ñëw noo ko en live ba bu la neexee ëllëg am en postcard seneinfo.net yemul un ak yéen ndax képp ku am sa produit ba sa événement boo bëgg a siiwal jokkool ak ñoom ci 77 253 87 98 ci Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee seneinfo.net daa gis ab publicité just cliquer ci pub ba soo ko defee ma def ko keneen def ko bu ñu dellusee daañu gis ne amélioration am na ci xarit soo amee sa programme muy bu rajo wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci seneinfo point net demal ci seneinfo rec at gmail dot com rec at gmail dot com nga woote ci 77 253 87 98 c'est Sénégal wala 347 596 20 36 347 USA la mbokk yi seneinfo point net seen sutu bopp la kenn ku ne mën na cee jàpp cliquer ci publicité ba nga ca gis rek aaju yëpp rek daal di faju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 institut ICFA da koy jagleel askan li ma ci gëna neex na moy fepp fo dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yoyu les cours lay dal amatul ci mag ak ci ndaw dem le légui inscrire ci icfaonline.com wala soo soxlawee ay information yu gëna a yaatu mën ngeen len jot ci 240 688 2505 wala ci 347 596 2036 wala nga email jot réponse bu gaaw vous c'est si ICFA daal international.

seneinfo.net diamant fofu ak pour ndax képp ku am sa produit ba sa événement bo bëgg siiwal jokkool ak ñoom ci 77 253 87 98 ci Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee seneinfo.net daa gis ab publicité just cliquer ci pub ba soo ko defee ma def ko keneen def ko bu ñu dans daañu gis amélioration am na ci xarit soo amee programme muy bu rajo wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci seneinfo point net demal ci info rec at gmail dot com rec at gmail com nga 77 253 87 98 c'est Sénégal wala 347 596 20 36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

voilà, nga envoie email jot réponse bu gaaw te woo si ikfa Dal aroba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 ak fépp ci aduna bi sen groupe d'information une info international ndimbalu askan wi moko taxajo Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakaatuhu Bokki dalen ak jam ci sen institut international ICFA.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

institut ICFA da koy jagleel askan li ma ci gëna neex na moy fepp fo dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yoyu les cours lay dal amatul ci mag ak ci ndaw dem le légui inscrire ci icfaonline.com wala soo soxlawee ay information yu gëna a yaatu mën ngeen len jot ci 240 688 2505 05 wala 347 596 2036 wala nga envoyé email jot réponse bu gaaw te woo si icfaonline@gmail.com ICFA daal yéex naa ñëw. mbokk yaa ngi sa kër yor sa ordinateur ba nga nekk sa biir oto sab rajo di suus te bëggoo benn information ci àddina bi ba yi jógee ci rajo sénégalais yi nekk ci WPT 9 am raw la kay ma wax la demal ci seneinfo net ci ce computer ba ce smartphone jàpp sa l'aise xibaar yi di ñëw noo en live ba bu la neexee ëllëg nga mën ko am en postcard ce point net yemul foofu ak yéen ndax képp ko am sa produit ba sa événement boo bëgg a siiwal jokkool ak ñoom ci 77 253 87 98 ca Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee sene info point net daa gis ab publicité just cliquer ci pub ba soo ko defee ma def ko keneen def ko bu ñu dellusee daañu gis ne amélioration am na ci xarit soo amee sa programme muy bu rajo wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci sene info point net demal ci sene info rec at gmail dot com sene info rec at gmail dot com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

institut ICFA da koy jagleel askan li ma ci gëna neex na moy fepp fo dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yoyu les cours lay dal amatul ci mag ak ci ndaw dem le légui inscrire ci icfaonline.com wala so soxlawee ay information yu gëna yatou yaatu mën ngeen len jot ci 240 688 2505 ou wala si 347 596 2036 wala nga envoyé email jot réponse bu gaaw te woo si icfaonline@gmail.com ICFA daal yéex naa ñëw. Sénéinfo International.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 mën nga bokk ci yooyu les cours lay daal amatul ci inscrire sur icfaonline.com Voilà, soo soxlawee ay information yu gën yaatu mën ngeen leen 240 688 2505 05 wala 347 596 2036 Voilà, wala nga envoie email jot réponse bu gaaw te si yéex naa ñëw mbokk yaa ngi sa kër yor sa ordinateur baa nga nekk sa biir oto sab rajo di suus te bëggoo benn information ci àddina bi ba yi jógee ci rajo sénégalais yi nekk ci WPT 9h raw la kay ma wax la demal ci seneinfo point net ci sa computer ba sa smartphone jàpp sa lees xibaar yi di ñëw noo ko bëggee en live ba bu la neexee ëllëg nga mën ko am en postcard seneinfo.net yemul foofu ak yéen ndax képp ku am sa produit ba sa événement boo bëgg a siiwal jokkool ak ñoom ci 77 253 87 98 au Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee seneinfo.net daa gis ab publicité just cliquer ci pub ba soo ko defee ma def ko keneen def ko bu ñu dellusee daañu gis ne amélioration am na ci xarit soo amee sa programme muy bu rajo wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci seneinfo point net demal ci info rec at gmail dot com seneinfo rec at gmail dot nga woote ci 77 253 87 98 c'est Sénégal wala 347 596 20 36

abonné leen ci suñu chaîne yu wér te ci réew mi mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen institut international ICFA professeur Mohamed Sakho ak équipe bu xarañ bi mu àndal leen dong moo leen tax jóg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 askanu Sénégal ak bitim rew un groupe d'information bi di Sen info international ubbil na len ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xétu xibaar ca ba mu ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci walu culture bi josan ak ada xibaaru tagat yaram xibaaru diine ak lepp lu xew ci aduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen info international ngir xam li xew ci sen réew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 yéex naa ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen institut international ICFA professeur Mouhamed Sakho ak équipe bu xarañ bi mu àndal leen dong moo leen tax a jóg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 dem leen inscrire ci ikfaonline.com. voilà so vous ay information informations vous pouvez vous mën ngeen 240 688 2505. 05 347 596 2036 Voilà, vous pouvez email jot réponse bu gaaw te woo si Iqfa Dal,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 mën nga bokk ci les cours lay daal amatul ci mag ak ci ndaw dem inscrire ci igfaonline.com voilà soo soxlawee ay information yu gën yaatu mën ngeen leen 240 688 2505 ou wala 347 596 2036 voilà wala nga envoyé email jot réponse bu gaaw te woo si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

wala nga envoyé email votre réponse bu gaaw te c'est si icfaonline@gmail.com icfa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

yéex naa ñëw mbokk yaa ngi sa kër yor sa ordinateur baa nga nekk sa biir oto sab rajo di suus te bëggoo benn information ci àddina bi ba yi jógee ci rajo sénégalais yi nekk ci WPT 9h raw la kaay ma wax la demal ci seneinfo point net ci sa computer baa sa smartphone jàpp sa lees xibaar yi di ñëw noo ko bëggee en live ba bu la neexee ëllëg nga mën koo am en postcard seneinfo.net yemul foofu ak yéen ndax képp ku am sa produit ba sa événement boo bëgg a siiwal jokkool ak ñoom ci 77 253 87 98 ca Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee seneinfo.net daa gis ab publicité just cliqueel ca pub ba soko defé defee ma def ko keneen def ko buñu ñu dañu gis amélioration amna ci xarit so amé ce programme muy bu radio wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci seneinfo demal ci seneinfo rec at gmail.com seneinfo rec at gmail.com dot nga woote ci 77 253 87 98 c'est Sénégal wala 347 596 20 36 347 USA la mbokk yi sene info point net seen sutu bopp la kenn ku ne mën na cee jàpp cliqueel ci publicité ba nga ca gis rek aaju yépp yi daal di faju Allah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 institut ICFA da koy jagleel askan li ma ci gëna neex na moy fepp fo dem ci États-Unis ak ci aduna bi mën nga bok ci yoyu les cours lay dal amatul ci mag ak ci ndaw dem le légui inscrire ci icfaonline.com wala soo soxlawee ay information yu gëna a yaatu mën ngeen leen jot ci 240 688 2505 05 wala ci 347 596 2036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

seneinfo.net yemul foofu ak yéen ndax képp ku am sa produit ba ce événement boo bëgg a siiwal jokkool ak ñoom ci 77 253 87 98 ca Sénégal wala ci Amérique 347 596 20 36 347 596 20 36 mbokk yi ngir seen site bu am solo boobu mën a continuer di dab seen bànneex jàpp ci lu yomb lool la saa yoo ubbee seneinfo.net daa gis ab publicité just cliquer ci pub ba soo ko defee ma def ko keneen def ko bu ñu dellusee daañu gis ne amélioration am na ci xarit soo amee sa programme muy bu rajo wala bu télévision nga bëgg mu jaar ci seneinfo point net demal ci seneinfo rec at gmail dot com seneinfo rec at gmail dot com nga woote ci 77 253 87 98 c'est Sénégal wala 347 596 20 36 347 usa mbokk yi seneinfo point net seen sutu bopp la kenn ku ne mën na cee jàpp cliquer ci publicité ba nga ca gis rek aaju yépp ay daal di faju Allah rahmatullah barakaatuhu mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen institut international ICFA professeur Mouhamed Sakho ak équipe bu xarañ bi mu àndal leen dong moo leen tax a jóg fexe ba noo leen di jote ci njàngale alquran al karim njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci anam bu bu wóor bu sell bu mucc ay teg ci